konuşturur.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 maa ngi leen di ziyaara bu baax a baax ngi leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk euh, rawatina ci guddi yu mag yi nga xam ne ci lañuy toll ñaan sunu borom mu nangul mbooleem sunuy jaam yàlla te fulal lu ko waaye it mbooleem ngëneel yi nga xam ne digg na ko ci weeru tedd wi yépp mu defal na ko ci ak mbaaxam ñaaral ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ko wér ngeen ko xamee daayira muxaddamatul xidma ni mu baaxoo ànd ak yéen ci weeru koor gi di ko dundal fii ci jumaa ji ci ndigalul sëriñ bi ñuy ànd ak yéen ci ay waxtaan yu am solo yoo xam ne day jëm ci sunu dundin ak sunu diine ñuy ànd ak ñun ci weeru koor yi di fàttalante ngir dundal weer yi ci xam-xam waaye ngir dundal weer yi itam ba mboolem weer yépp ñu mën koo màng ci aw yiw tey jii nag ñu dellusiwaat siwaat fas yéene ànd ak yéen ci beneen tomb bu am solo bu yitteel rawat na ci jamono ji nga xam ne ci doon toll te weeru tedd wu mag yi di waaj a jeex ñu ne ci fan yu mujj yi fan yu mujj yi ñu toll nag bu ñu ci tollee xel day dem ci yeneen ndigal yoo xam ne dafa lëkkaloog jaamu yàlla gi nga xam ne moom la nekk muy weeru koor di lu mat a waxtaane ngir nit ñi gën koo bàyyi xel waaye gën cee xam itam nañ ca war a taxawe te nañ war a taxawe du nenn nu dul ñi nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la ñu fas waxtaane mooy lu jëm ci muurum koor muurum koor ak lu aju ci salaatul iid muy jullik iid xam ngeen ne ñaar yooyu lu ci ne day mbir moo xam ne dafa lëkkaloog jaamu yàlla gii nu nekk lu ci ne itam am ay atte ak ay war-war yoo xam ne daa lëkkaloog moom mu jaadu lool ci jullit bi bu tollee fii mu jéem a xam yooyu yi nga xam ne mooy ne ci kanamam tam lëkkaloog jaamu yàlla gi mu nekk nu mu ko war a defee ak attee ca aju ca la koy defar ak la koy yàq ak ni muy dëppook njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci loolu la tomb bi jëm waxtaane la ay ci mburum koor ak teggin yi ci war ak atte yi ci war waaye waxtaane lu jëm ci salaatul ayit ak teggin ci war ak atte yi ci war lu fas yéene koo ànd ak kenn ku xam ne mi ngi nii ci sama wet mooy sëriñ Ibrahima Kebe koo xam ne xëy na barab bi miin na ko waaye ñu toog ci barab bi itam miin nañ ko ci jataay yu mel ni yu baree bari muy jataay xam-xam di boroom xam-xam boo xam ne manis naa wax ne fii doomi soxla yépp jaar ci sàpp xam-xam foofee rek la jaar te mooy jàng alquranul karim jànge ko fii ci dëkk bi jànge fi itam li ñu war a jàng ci xam-xam lépp te mooy rek jàng ba yegg fa la iskaala doog a génn dem bitim réew ca gànnaar dellu ca barabi jàngalekaay ya nga xam ne mooy majalis ya jaar fa yeggale li mu doon jàng fii ci Tuubaa gën koo xóotal ba yegg ca fañ ca war a yegg doog a dugg ci jaamia ya fa nekk ba génne fa licence di boroom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xamam màcc na ci wàll gi mu jëm lool ci wàllu diine ak ci yeneen wàll koo xam ne jataay bii miin na ko waaye kuy topp jataay yi xam-xam yi ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi itam dana ko eh, miin lool ci jataay yi mel nii kon moom lañ fa yéene àndal ci tomb bi nu koy ñaanal tawfeex bu baax a baax ba li muy wax mu doon lu leer loo xam ne danañ ñun ñi koy déglu danañ ci mën a jariñu yàlla ko ci yàlla dofal tawfeex si Ibrahim noo ngi lay jox kàddu gi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 ni ko noonu ñu ngi nuyu bu baax tey siyaar euh, kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb bii di waa Muxaddamatul Xidma ak seen taxawaay am solo yi nga xam ne ñu nga koy amal ci liggéey euh, lislaam rawatina ci liggéey bi yoonu waaye rawatina ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi amee ci jumaa ji ci lépp loo xam ne day sàmm euh, warmay lislaam lépp loo xam ne day doone lislaam rek ñu ngi ciy taxaw ñu ñaan suñu borom tawfiixal leen ci rawatina nag ci jataay xam-xam yi nga xam ne am na solo lool ci ñu di ko amal an mu jot ci koor gi ak yeneen yëpp rek yëpp yëngu-yëngu yoo xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ciy nekk ñu ngi ñaan suñu borom def ñu am ci ngërëmal suñu borom dëppoo ci it ngërëmal Cheikhul Khadim di nuyu baax ak siyaar mboolem mbokk yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun jataay bi moo xam ñi nekk ci jataay bi ak ñu nekk ci biti bu ñu waaye di dégg rek ñu lay nuyu baax di la siyaar di la nuyu baax yor suñu xalil ci ubbi gu am solo googu bu ko defee thème bi nga xam ne moom lañu war a waxtaane comme ni mu ko waxee rek ñi nga war a waxtaan ci zakatul fitri wa salaatul iidayni ahkaamul wa adab ñu ngi war eh, waxtaan ci asakay murum koor ak attey iit rawatina iitu korite ak seeni atte ak seeni ya ci aju ay teggi nag ya ci aju yëpp rek eh, zakatul fitri ak salaatul iidayni wax ne iid yi nga xam ne suñu borom da koo yoonal te mooy iidul al iidul adha ak iidul fitri bu ko suñu borom ba noppi da caa defaale ñaari jëf yoo xam ne doomu aadama dañ koy jëf bu dee iidul adha dafa am ñaari jëf yu ci am yoo xam ne jenn jenn ji jëf la yoo xam ne doomu aadama da koy def ci alalam ngir jege ko boromam te mooy lu mel ne xar mi rendi ak ci aju génn jëf gi jaamu yàlla la bu doomu aadama bi def di ko jegee boromam lu mel ne julli it ni ko noonu boo ñëwee ci korite da nga ci fekkaat ñaari jëf yooyu muy jëf joo xam ne doomu aadama da koy def ci alalam di ko jaa di ko jegee borom te loolu mooy lu mel ne génn asaka yi muurum koor wala muy jëf joo xam ne ak jaam yàlla la doomu aadama di ko def ci bisu it lu mel ne jullit it ñaari jëf yooyu nga xam ne dafa soxal korite ci lañu war a waxtaane ba ci jiitu mooy zakatul fitri muy loo xam ne suñ borom mi ñu digal woor farataal ko ci ñun suñ borom moom moo ko farat moo ko farataal moom euh, julli euh, moom asakay murum koor mu doon nag lu bëri ay tur euh, des na ko tuddee zakatul fitri di ko tuddee al fitratu di ko tuddee ba tey euh, zakatul abdaan di ko tuddee sadaqatu ruus di ko tuddee zakatu riqaab ak yu bëree bari mu doon loo xam ne suñ boroom mi ngi ko farataal jaarale ko ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum ñaareel ci gàddaay gi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay dem madina ba ci atum ñaareel ma ci la ko suñu borom farataal moom asakay mburum koor ci an moom ci la suñ borom farataal koor ci at moom ci la suñu borom farataal julli it ci an moom suñu borom farataal atte atte yu bëree bëri moom julli it moom asakay murum koor buñ ko doon xamle ci xamle bu gàtt te tënku dañuy jël rek xamle ba nga xam ne moom la ibnu arafa waxoon te ibnu arafa kenn la ci borom xam-xam yi nga xam ne dañoo tënku ci ngirum imam malik ca téeram ba ñuy wax alxudud dafa waxoon ne zakatul fitri la ko doon wax mooy i'taau muslimin faqirin li xuuti yow li xuuti yowmi lfitri saan min gaalibi lxuuti aw jusuhu lmusamma almaxsuuri wujubuhu alayhi mooy nga jël lu ñuy wax saa saa dañ ko leeral ci kanam mooy lan mooy li toll li ñuy war a génne asakay murum koor nga jox ko ab faqiir buy ab jullit ci bisub korit te ba nga koy jox na dëppoog la ëpp ci la waa dëkk bay dunde wala bu fekkee mënu koo jox loolu ba mat nga jox ko xaaj bi ci la nga am moom noonu la xam de moom nag ak waram ci sunna leer na nañ ci alxuraan la borom xam-xam wuute ndax am na ci alxuraan aaya bi wane na asakay murum koor lu war la wala déet waaye ñu bëri ci mufassiroone yi wuute nañ ci li suñ borom di wax ci suratul ala qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla wuute nañ ci waaye ñu bëri ci ñoom daño wax ne aaya bi suñ borom asakay murum koor la ci farataal te bokk na ci ñi wax loolu ci mufassiroone yi ku ci mel ne alaama cheikh ahmad wul ahmadiya bokk ci borom xam-xam Mauritanie yi bokkoon na ci ñi nga xam ne amoon nañu relation diggante ak Sëriñ Tuubaa ca tafsiram booba nga xam ne aw way la ma ngi cay wax naan maana tazakka annahu tatahara min shirkihi daka allazi kaana aftara bi kalimati tawxidi aw adda zakata fitrihi wa zalahu alqudri xaka wa baadahu wa zakara sma rabbihi ay kabbara takbira iidin dahiban fi ma yara wa baadahu salata iidi alfitri salla ala allazi yaqul alqudri nee na tazakka buñ ko waxee fii ci alquran li mu mooy mooy axraja zakat alfitri wa zakara asma rabbihi ay kabara takbir al iid fa salla salaat al iid mooy dafa wax ne tazakka mooy génne na asakay murum koor wa zakara asma rabbihi mu tudd boroomam ndax xam nga kuy julli ji dañuy bëgg ci yow booy dem ngay wax allahu akbar fa salla ginnaaw bi mu julli julli iid noonu la ko waxee daan ne kon day wane ne aaya boobu ci asakay murum koor la wàcc waaye noonu ma ko waxee it lu bëri ci borom xam-xam noonu lañ booy liir tafsirul Qurtubi ci xaajum ñaar fukkeel bi muy tafsir aaya bi ba tey nettal na ci wax yu bëree bëri andi ko bokk na ca euh, la nga xam ne moom la ñu solo an kathir min abdillahi an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu suila an maana al aaya mu ne jële nañ ci yonente bi sallallahu jële nañ ci kathir min abdillahi mu jële ci baayam mu jële ci mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko aaya bi li mu firi mooy xadaf laha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla lan la aaya firi mu ne te ay axraja salaat eh, zakat al fitri fa salla salla salaat al iid mooy te zakka bu ko waxee fii mooy génne na asakay murum koor waaye it fa salla mooy julli na julli it kon ba tey mel na ne am na ab jeexit wala asar wala ab yax boo xam ne jóge na ci yonent bi saasam bi wax jooju waaye wax jooju ni ko noonu solo nañ ko jële ko ci eh, abdullah ibnu abbas eh, abdullah ibnu ak ibnu abbas ak daxaak ak ñu mel ne ñoom waaye ba tey it xurtu bi day nettali ci tafsir ci xaaj bu njëkk bi wax ne imam malik doon nañ ko laaj asaka ji suñu borom di tudd ci aaya bi mu naan xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum ci surat tawba aaya boobu ndax suñu borom asaka euh, jépp la ci jublu wala dafa am asaka yu ci jublu ndax asaka yi bokkut waaye day mel ne imam malik da ko wax ne ko aaya boobu dafa nekk aaya bu matale ci mbooleem asaka ji ñu suñ ju aju alal moo xam asaka yi murum koor la moo xam asaka Eh, judul asakay murum koor ba wax na sax ne imam Malik wax na ne aaya boobu ci asakay murum koor la jógee te nettali boo wax ne ibnul xaasim dégg na ko ci imam Malik kon eh, loolu ay ay wax la yoo xam ne borom xam wax nañ ko ne asakay murum koor ak farataam ci alquran moom am lu am la bu dee ci sunna nag te mooy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama wuute wuñ ci ne asakay murum koor farata la xadis yu jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama di farataal asakay murum koor bëri na trop dul benn dul ñaar imaam Maalik andi na ci xadis yu bëree bëri ci Muwatta Buxaari andi na ko Muslim andi na ko xadis yooyu mën nañ cee jële euh, ci imaam Maalik ci Muwatta lu ci mel ne xadis bi mu naan xaddasani Yaxya an Maalik an Naafi an Abdullah ibni Umar anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam farada zakat alfitri min ramadana ala nnaas euh, farada zakat alfitri min ramadana ala almuslimina saaan min shairin ala kulli xurrin aw abdin zakarin aw unsa min almuslimin mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na asakay muurum koor muy ab saa ci bépp jullit moo xam góor góor la wala jigéen moo xam mag la wala ndaw moo xam góor la wala ah, ku ku gore loolu ab ab xaddis la ci xaddis yi nga xam ne mi ngi ci Muwatta ba tey di di wane waruk asakay murum koor waaye bokk na ci xaddis yooyu ba tey xaddis bi imam Malik wax naan xaddasani malikun an Sayd ibn Aslamin an Iyaad ibn Saadillahi an Abdillahi ibn Saad ibn Iyaad ibn Abi Sarh al-Aamiri annahu sami'a Aba Saïd al-Xudriya yaqulu kunna nuxriju zakat alfitri saan min tamrin aw saan min sairin aw saan min zabibin aw saan min axitin wa zalika bi saai nabi salallahu alayhi wa sallam daanañ génne asakay murum koor daan ko génne ci saa moo xam ci tamr wala ci sair wala zabib wala aqit yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne bu ñëwaatee danañ ci egsi mu doon ñaari xadis yoo xam ne benn bu ci nekk mi ngi ci Muwatta imam Malik xadis yooyu ci bëri bëri bëri indiwuñ ko niki noonu it boo demee ci Buxaari andi na ci bëri bokk na ci xadis حدثنا يحيى ابن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابن عمر عن عن عن نافع بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر saa min tamit aw saa min sairin comme xadis boobu ñu tuddoon léegi ba ba ci mujjantal ga donte xadis boobu ci mujj gi dolli nañ ci wa amara biha an tuadda xabla xuruji naas ila salaat muy xadis boo xam ne ak dolli ñëw na ci te ñëwut ci xadis mu njëkkoon waaye it ni ko noonu am na beneen xadis boo xam ne xadisu abdullahi ibni yusuf la man xaddasana abdullahi ibni yusuf qaala axbarna malikun an naafiin an abdullahi ibni umara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam farada zakata alfitri saaan min tamrin aw saaan min sairin ala kulli xurrin aw abdin zakarin aw unsa min muslimin muy doon ay xadis yu bëri yoo xam ne mi ngi ci téere xadis yi di wane ne zakatul fitri lu war la waaye teewul nag ci borom xam-xam am na ñoo xam ne am nañ gis-gis ci xadis yooyu ndax dañoo wax ne baatu farada gi nekk ci xadis yi tegteel wut ak war ndax baatu farada ci làkk arab day tegtale nattale ñoom dañoo gis ne farada googu tegteel wut war waaye day tegtale nattale kon zakatul fitri du farata waaye sunna la ñoom gis-gis yooyu la ñoom am na ci borom xam-xam ñu ko gis lu mel ne ñenn ci saafi yi bu dee ci maalik yi ci mel ne ashab ci mazhab bi xam nañ ko gis-gis boobu la amee waaye gis-gis boobu ñi wax ne zakatul fitri farata la ñoo gën a dëgër ndax ñoom seen gis-gis dafa am beneen xadis bu koy dëgëral te xadis boobu mooy xadis bi nga xam ne mi ngi ci sunan nasaa'i xadis amr ibn shuayb an abihi an jaddihi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam baasa munaadiyan yunaadi fi fijaaji makkata ala inna sadaqata fi tawaajibun waajibatun ala kulli muslimin muy xadis boo xam ne dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabal na ndaw mu jaar ci mbeddi makka yi di yuuxu naan ma ne asakay murum koor farata la asakay murum koor aji war la ci bépp jullit aji war la ci bépp jullit moo xam góor la moo xam jigéen moo xam mag la moo xam ndaw moo xam ab jaam la moo xam du jaam kon asaka murum koor ak waram moom lu wér la ñi wax ne sunna la it seen wax ñi wax ne farata la moo gën a dëgër kon moo tax ci ngirum imam malik bañ dalee taarif ba léegi bu ñuy wax ñoom lañu wax ma dañ naan asaka yi koor dafa farata la ku ci mel ne eh, sëñ bu mag bi ci tasudu subaan bi muy wax loolu wax suma zakatul fitri saaun xat tajib min xuuti saaun xat tajib ankum wa man an xuutukum minkum tulib min muslimin bi julli ayshi dahri wa tuxta xurran musliman za faqri noonu la ko wax suma zakatul fitri saaun xat tajib dafa wax ne zakatul fitri saa la boo xam ne day war ci kan mooy ci yéen ak ci képp koo xam ne ab dundam yéen a ko yéen ko war wax na ne asakay murum koor daa war boo demee ci xalil ci muxtasar xalil ba tey xalil loolu wax dafa wax ne yajibu bi sunnati saaun aw jusuhu anhu fadal an xuuti wa xuuti iyaalihi wa in bi tasalluf dafa wax ne asakay muyum koor dafa war dafa war ci nit ki ci dundam ginnaaw bi mu génnee dundam ak dund waa ak njabootam ba noppi asakay muyum koor la ca des da caa loolu lépp danañ ci egsi ci ay ay détails ni boo wàccee téere yi mësam maalik yépp bu ñuy wax dañ naan asakay muyum koor dafa war borom risaal lu wax wa sadaqatul fitri wa sadaqatul fitri sunnatun waajiba borom borom ibnu asir faslun sadaqatu faslun zakatul fitri saaun xat saaun wa tajib min muslimin wa man bi jullihi tulib min muslimin min julli ayshat xawmi wa man bi risqihi tulib min muslimin bi julli ayshat xawmi li tuxil xurran musliman fi l yowm faslun zakatul fitri saaun wa tajib min muslimin wa man bi risqihi tulib an muslimin min julli ayshat xawmi li tuxni xurran musliman fi l yowm kon yooyu yëpp ay texte la yoo xam ne mu ngi ci téere fiqhi maliki te ñoom la ñuy wax mooy asaka yi muurum koor farata la kon texte yëpp buñ ci sukkandikoo dañu xam ne asakay muru kor doon gi doon farata moom kenn wéranteetu ci asaka jooju nag buñ ci waxtaan dañ ciy wax ci ñeenti anam mooy ki koy génne ak li muy génne ak kan la koy jox ak waxtu wa daanaka loolu du du ko génne mooy al wal wal muxraju anhu wal waxtu lasi fiihi yuxraj wal wal madfu ilayhi képp mooy ñeent ñeent yooyu waaye buñ xoolee xikma yi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw farataal gi ko suñu borom farataal ndax xam nañu suñu borom bépp ndigal bu mu diglee moo xam xam nañ ko wala xamuñ ko am na njëriñ lu nekk sa ginnaaw waaye bépp tere bu tere moo xam xam nañ wala xamuñ am na lor ju nekk ci ginnaaw asaka murum koor nag bëri na ay njariñ yu ci nekk njariñ yooyu am na luñ ci xam am luñ ci xamut bokk na yéen ci xam mooy ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddoon ci xadis uh, abdullah ibn abbas mooy farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitri uh, tuhratan li saaimi min allaxwi wa rafas wa tomatan lil masaakin man addaha qabla salaati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha bada salaati fa hiya sadaqatu min sadaqaat mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na farataal na asakay murum koor ngir mu doon loo xam ne day laabal aji woor ji ci rëcc yi ko doon rëcc ci koor gi waaye ngir mu doon noonu loo xam ne euh, day doon aw ñam ci way ñàkk ñi ci bisu korit kon asakay murum koor bokk na ci njariñ yi nekk ci génn gi mooy day laabal koor gi waaye it day dimbali way ñàkk yi nga xam ne amul luñ dundee ci bisu koor ci loolu bokk na ci njariñ ci nekk bokk na ci njariñ it mooy benn la ci yi nga xam ne suñu borom nee na képp ku def benn yiw man yàlla seen borom danaa leen ko defal fukk loolu bokk na ci njariñ yi ñu xam njariñ yi ci xamul nag moo ëpp waaye it loolu li koy firndeel am na borom xam bu ko tënk ci bay di wax ne wa suriat zakatuna li tajbura maa kaana fi siyaami min laxwin jara wa rafasin wal ajru mawqufun ala ixraajihi alxataa bu haza nuqila zakatul dañ ko yoonal ngir mu dindi rëcc-rëcc yi nekk ci koor gi bi ko nit ko wooree waaye it ngir mu doon aw ñam ki nga nga xam ne dafa ñàkk ci bis korite te it wax nañ ne toxal toxalee nañ jëlee ci ibnul arabi mu ne asaka jooju nit ki ko war a génne bu ko génne ak kooram dee fa ko nangu wala dañ koy teg ci bërëb ba loolu jàll donte xadis bi tegtaloo ay wànc waaye yooyu ak soññee la ci kon dañoo war a génne asakay munu ko waaye it niki noonu noonu nga xamee ne bëri na ay njariñ yu nekk ci ginnaaw génn gi niki noonu boo xam ne dañuy tudd ne am na ay lor yu nekk ñàkk gi génne bokk na ci lor yooyu euh, la borom xam-xam rek rek yublaa bi naqsi sawmihi wa yuqsaru umran wa risquhu alayhi yuqdaru almutahaawinu bi ixraaj zakati fitriya kasul xanaa ida xaka képp koo xam ne dafa war a génne asaka yi mu ko te génnewu ko yublaa bi naq si saw mi mooy danañ ko nattoo ak koor gu manqué ndax asaka ji waroon na mottali koor gi da koo génnewut asaka nan lay mot nan lay mottalee koor ci misaal nit ki dafa julli woon fàttee tari saar ginnaaw wala mu fàttee taaya wala mu fàtte loo xam ne dañ ko war a sujjootal loolu dañ naan ko sujjootal mu defar julli gi ni ko ko dañ naan la defal génneel asaka ji mu mën a defar rëcc rëcc yi nekk ci jullit gi kon boo ko déggee noonu rek day yomb mu ne ki nga xam ne nag da ko man ba noppi bañ ko génne danañ ko nattoo ak kooram du mat du mat waaye it aw fanam day gàtt waaye it aw wërsëgam day wàññi muy ñett yoo xam ne benn bu ci nekk rek euh, jëru maanaam jëru ñàkk génn asaka génn asaka jëru kon ñett la yoo xam ne benn bu ci nekk wax nañ ne kuy ñàkk génn asaka yi murum koor ñett yooyu mën na ci bañu mucc kon loolu mooy ci tënk asakay murum koor farata woom ak nag li nekk ci ginnaaw ci ay njariñ sax suñu borom digle ko ak yi nekk ci ginnaaw ci ay lor yoo xam ne tax nañu war a ñàkka sàggan ci asakay murum koor jooju ab àtteem wax naa ne la farata la ibnul munzir sax tuxal na ne borom tuxal na ne àtte euh, farata euh, zakatul fitri doon gim doon farata ijmaa la borom xam-xam yi dëpp nañ te ijmaa bu ñu ko waxee mooy loo xam ne kenn sañatu koo xët mooy borom xam euh, borom xam xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ci ab àtte ne nii la ibnu abdul bari wax na ne dëppoo gi ci borom xam-xam yi dëppoo ñenn ñi nga xam ne dañoo jàdd naan sunna la maanaam seen jàdd googu du maanaam mënut a suyee dara ci wax gi ñu wax ne farata la moom asakay murum koor kon ijma am na ci am na yax ci am na yax ci sunna si am na ijma kon ab àtte mooy farata la moom asakay murum koor asaka jooju nag bu ñu waxee ci ab àtteem ba noppi danañ wax ci kan la war kan moo ko war a génn moom asaka moom moom zakaatul fitri zakaatul fitri wala asakay murum koor wala asakay muddum koor ki mu war mooy ab jullit jullit boo xam ne am na maanaam attan na génn asakay murum koor foofu nag attan bu ñu koy wax dañ naan mooy koo xam ne dundu bisu koriteem bu ko génnee ci lim am dana des maanaam koo xam ne am na dépasse bisu korite ba mu des doon na ab jullit bu noppi am na dépasse bisu korite la des ca alal ji da caa war a génne asakay murum koor kon képp nit koo xam ne sart yi daj na ci doon nga ab jullit ab yéefar waxuñ ko bi nga doon ab jullit bisu am nga dépasse ba mu des la ca des da nga caa war a génne asakay murum koor waaye da koy génneel sa bopp waaye da koy génneel képp koo xam ne ak dundam yow la war bu ñu waxee ak dundam yow la war nag mooy koo xam ne yaa ko war a dundal waxuñ koo xam ne da ngaa warlu ak dundam koo xam ne yaa ko war a dundal mooy moo xam na nga ko war a jege ngir ak jege ak jege ak jege ak jege woogu nekk seen lu mel ne diggante baay ak doom wala diggante eh, doom ak ay waajuram wala diggante borom kër ak soxnaam kon nit ki moo ko a génneel boppam moo ko war a génneel ñaari waajuram yi nga xam ne dañoo ñàkk mooy yaayam ak baayam moo ko war a génneel ay doomam yu góor moo ko war a génneel ay doomam jigéen moo ko war a génneel soxnaam yépp danañ ci détail moo ko war a génneel ñaari waajuram yu ñàkk baayam ji amut lu mu génne asakay muurum koor moom doom ji am lu ko génne moo ko war a génneel baayam waaye it moo ko war a génneel waajuram bu jigéen waaye it ni ko noonu sax baayam moomu bu amoon yeneen soxna te te amut lu leen génnelee moom doom ji moo war a génneel baayam génneel soxnay baayam yooyu jamono ja jaam di am baayam bu amoon ab jaam wala soxnay baayam yooyu am ay jaam moo leen war a génneel ni noonu noonu noonu nga koy waxee ci waajuramu jigéen waaye it ni noonu moo ko war a génneel ay doomam yu góor moo leen ko war a génneel bañ dem ba doon magum jëmm ba mën a liggéey su boobaa nag mu doog ko wàcc bu fekkee ne dañoo dem ba doon ay mag am gàllankoor bu tax mënuñoo liggéey lu mel ne dañoo am ay eh, jafe-jafe ay eh, masala ay gàllankoor wala ay dese ñoo xam ne seen xel dafa dese su boobaa moo moo leen ko war a génneel bu dee ay jigéen moo leen ko war a génneel bañ may leen borom kër ba jox leen seen borom su boobaa ñooñu moo leen ko war a génneel suñ xasee ba sëy nag dootu leen ko génneel nag koo xam ne ab dundam waru ko waaye dafa warloo ab dundam koo xam ne yow dundal dundal ko waru la waaye yow yaa coobare nga ko dundal kooku it soo ko génnee asakay murum koor mu wàcc bu la neexee nga génne ko waaye nag du farata ci yow foofu moo tax foofu lu mat a leeral la léeg nit yàgg ci yow wala jege la ba nuru ne ba nga xam koy defal lépp kooku taxul asakay murum koor mu war la kooku asakay murum koor mi nga war ay waajuram waaye téewul nag yow boo ko xasee génneel mu wàcc ay waajuram mooy lu mel ne ki nga xam ne dafa yaroo sa kër wala tey kii fii liggéey nekk fi wala sax euh, ñi nga xam ne day taalib yi nekk ci kër sëriñ bi wala xëy na mel noonu bëri na képp koo xam ne ab dundam waru la daal bu la neexee nga génneel ko ko waaye du farata ci yow foofu dañuy leeral ne am na ñoo xam ne seenu dund mën na laa war te seen asaka du la war loolu mën nga ci déggee koo xam ne dafa am soxna soo xam ne du jullit koo xam ne dafa am soxna soo xam ne du jullit moo ko war a dund te waru ko génne asaka yi mënu ko ndax soxna sa asaka mënu ko waru ko koo xam ne dafa am soxnaam su wàcc wàcce ko lu mat ñetti yoon wala ñu wàcce mu wàccee ko noo xam ne daal diggante ba dag dog na te soxna sa wan na lor su boobaa moo ko war a dundal ngir la euh, ëmb bam ëmb waaye waru koo joxe asaka mu ko ndax yëf ni ki noonu it koo xam ne dangaa warloo ab dundam nga xam ne dund la yaa warloo ab dundam kooku it da nga ko asaka yi murum ko woon waaye ñi ñëpp na kooku ci kooku ci génneel ba tey mu baax ginnaaw bokk xam le kon nii lañ ko war a génnee wax naa ne borom kër moo ko war a génneel soxnaam waaye ci sartu borom kër am lu ko génnele donte soxna si moo ëppale borom kër gi alal sax borom kër gi bu amee lu mu ko génne lee rek moo war a soxna si waaye na bu ñu demoon safaan bi am lu mel ne borom kër gi amul dara soxna si borom kër gi su boobaa mu na ko waaye soxna si wax nañ ne daa war a génneel boppam su fekkee am na waaw ba daa wax ne azawju in asara an infaaqi zawjatihi bi sababi imlaaqi euh, ixraajuha an nafsiha saaxastuhib xiila bihi wa xiila innahu yajib mooy borom kër bu ñàkkee ba mënut a génneel wax nañ ne boobaa nag soxna si moo war a génneel bopp ñenn ñi ne dañ koo sopp ñenn ñi dafa wax muxtaaratul baqaa'i maa zawjin faqir zakatu fitriha alayha ya samir koo xam ne dafa am borom kër bu ñàkk mënu koo génneel asak moom ci jëmi boppam moo war a génneel euh, boppam asak borom xam-xam wax nañ ne soxna su amee borom kër ju ñàkk ba yooyu lekk asaka bu ko neexee bu génnee asaka ci na koo joxaat borom këram loolu it euh, ci masala yi kon loolu mooy lu aju ci loolu ñi ko war a génne kon mooy nit ki da ko war a génneel boppam génneel ko képp koo xam ne ab dundam moom la war mooy ñaari waajur ñu ñàkk ak euh, ñi nga xam ne dafa am ak jegeñaal lu mel ne ñaari doomam ak ñu mel ne ay euh, soxnaam yu ni mel waaye it ñu xamee loolu ba noppi nag ñu xam ci lan lañ ko war a génne asakay murum koor dañ ko war a génne ci juróom-ñeenti mbir yoo xam ne borom xam-xam yi tudd nañ juróom-ñeenti yooyu mooy xam sha'ir zabib sulut ak urus ak duxun ak tamr ak zurat ak aqit bu juróom-ñeenti xeet juróom-ñeenti xeeti meññeel la yoo xam ne yu ci bëri ñëw na ci xadis xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen génne asakay murum koor ci nangam wala ci nangam wala ci nangam wala ci nangam juróom-ñeent yooyu nag mën nañu amandoo ci ab dëkk mën nañu faa bañ amandoo waaye juróom-ñeent yëpp bañ tey bàyyi xel rek mooy bañ ca ëpp luñ ciy dunde bu fekkee juróom-ñetti yëpp ñu ngi fi waaye am na ci boo xam ne moom lañu ëpp lu ñu dundee su boobaa ca boobu dañuy génne te loolu danañ ko leeral ba mu gën a leer juróom-ñeent yooyu xam moom bu ñu koy wax mooy bele bele xam nañ ko mooy euh, pepp bi ñu defaree lu ci ëpp mburu sha'ir ba tey am xeetu pepp la euh, zabib moom mooy raisin sulut ba tey moom am am pepp la tamr mooy tàndarma uruz mooy ceeb duxun wax nañ ne mooy suuna aqit dañuy wax ne mooy meew mu waw mooy soow mu wow ñenn ñi mooy farmaas la am ñu ne mooy farmaas zura mooy firi mboq juróom-ñeenti xeet yi bu fekkee ne mu ngi ci ab dëkk buñ cay dunde nga xam ne moo ëpp lu ñu dunde su boobaa booy génne asakay murum koor ci juróom-ñeent yi nga koy génne moom it am na détails yu ci bëri yoo xam ne danañ ci danañ ci yegg waaye borom xam wax nañ ne juróom-ñeent yi li fi mi ngi am sañatoo koo génne ci leneen ak donte leneen loola ca ñi ñuy dund am na ñu wax lu mel noonu ci misaal Sénégal li ñu fi ëpp dunde mooy ceeb te bokk la ci juróom-ñeenti kon ci ceeb lañ ko génne bu fekkoon tey mboq lañ fiy dunde moo ëpp ci li ñuy dunde su baa mboq lañ génne waaye nag bu fekkoon nañ fee bàyyi juróom-ñeent yi di dundee leneen lu dul juróom-ñeent yi ndax mën nañ ko cee génne wala déet ñaari wax ci ñeneen ñi dañ ko ci génne ñeneen ñi li fii juróom-ñeent yi ñi ngi am duñ ko sañ a génne ci leneen ak donte leneen loola moom la ñu ëpp dunde loolu loolu la ñoo borom kafaaf andi na ko waaye day mel ne ñeneen ñi dañoo wax ne li gën a wér daal te day mel ne loolu Sidi Abdoulaye euh, lëngal ci fatawa Muhammad ibnul Haqi way ko wax ne li gën a lañ gën a dunde moom la ñu génne donte juróom-ñeent yi ñu ngi fi nga xam ne kon tey nit ñi tey bu ñu fi bàyyi woon di dunde ceeb bu ñu fi bàyyi woon ceeb di dunde leneen di dunde ci misaal bu ñu génn asaka yi murum koor ci ndaw lañ ko génne donte nag foofu dana am ay yeneen euh, atte yi dana xaw a sopp tuuti <clears throat> waaye bu ñu waree génne ci juróom-ñeent yi kan lañuy ñuy natt jamono jan jamono la xool daana na jamono jii kat la wax ne ci la xool li ñuy ëpp dunde ñetti waxan ci ñenn ñi dañuy xool at mépp lañ ci ëpp dunde ci lañ koy génne ñenn ñi dañuy xool weeru koor lañ ca doon dunde ñenn ñi xool bisu waaye ñetti wax yooyu bi ci gën a wéer mooy dañuy xool weeru koor la ci doon dund te li tax mooy comme asakay murum koor dañ koo farataal ci nit ki te la tax ñu farataal ko mooy weeru koor kon la gën a jaadu mooy ñu génne ko ci lañ doon dund ci koor mi benn ñaareel mooy dañ koo def dañoo gis ne weeru koor doomu aadama yi dañuy defaraat seenu dund masalan ñu ci ëpp lañ doon dundee dañ koy gën a defaraat wuutee gudut koor nga xam ne dund gi xëy na ci koor lay gën a baax ci ci ko ñu gis ne kon génne ko ci weeru koor moo gën a jaadu nga xam ne kon bu dee ci wax ji ki nga xam ne doon dunde ceeb di dunde ceeb ba weeru koor mu change ab dund di dunde leneen lu dul loolu la muy dunde ci weeru koor ca la ko génne lool la boroom xam-xam yi wax léegi nag bu fekkee ne nit ki da doon dunde lu dut juróom-ñeent muy parce que muy dunde am aw yàpp wala muy dunde soow su boobaa nan la koy def nan la koy nan la koy génnee ak nan la ko war a nattee ndax xam wuute na ceeb ni koy nattee ak ni ñuy nattee pepp xawuta sore waaye ndax bu doon dawal wala ya wala am soow wala dara na lañ koy génne subaa loolu it eh, ci masala yi la dañ ci yegg kon yii mooy wax yi nga xam ne borom xam wax nañ ne ci lii la nii la war a doxee mooy bu ñu koy génnee dañuy xool lañ ëpp a dundee ci weeru koor ñu génne ko ci waaye bu fekkee ne lañ doon dundee benn la ci juróom-ñeent yi ñu wax lu mel ni ceeb walla mboq walla dugub wala yu ni mel ñu du ko ci génne su boobaa dañuy génne ñeenti mudd te mudd danañ leeral mudd mooy lan ak yu ni mel su fekkee nag la nga doon dundee ak ndawal la wala am soo wala dara su boobaa borom xam wute nañ ci ndax danga nga ko war a génnee comme ni ñuy génnee pepp wala danga nga ko war a génnee weneen génneen ñaari boroom xam-xam ci mësëb mali dañ ci wuute ku ñuy wax al bursuli ak ku ñuy wax ashabiwi bu dee euh, ku ñuy al al bursuli dafa wax ne dañuy xool asakay murum koor boo ko doon natt ci ceeb fa muy ñu natt foofu ya ndawal ba mu toll foofu bu dee am soow ñu natt foofu ba mu toll bu dee sabi bi moom dafa wax ne dañuy xool asakay mburum koor saa boobu boo ko joxoon ñaata nit la mën a reggal ñu jël lu toll ñu toll noonu lu leen mën a reggal ci ak ndawal ñu jox leen waaye day mel ne ñaari wax yi ba ci gën a dëgër mooy wax ji njëkk ji mooy euh, dañuy xool bu ñu doon natt ceeb fa mi toll ñu natt ndawal ba mu toll foofu ba mu xam daa wax ne asaaxu min laxmin wa rislin yanjali fiihi ictibaaru lkayri inda albursidi وللشبيب ها هنا المصب معتبر والأول الأصب فيفرخ فيفرخ الحب لدى من قال به wala قدح ولبن في قال bi mooy dañuy jël yàpp wi wala soow mi def ko ci pot bi ba mu tolloog bu ñu doon natt ab ceeb fa mu toll bu de am soow yi noonu te loolu mooy wax ji gën a dëgër te moom moom la Sidi Abdoulaye eh, dëgëral ci nawasir kon loolu mooy lu aju ci jëmmi xeer yi ñu ko war a génne li ñu war a génne nan la war a toll dañu wax ne li war a génne saa doon saa nag bu ko doon xam ne dañ naan mooy ñeenti mudd mudd bu ñu ko xam ne dañ naan la benn mudd bu ci nekk mooy ñaari loxo yu fees dell yoo xam ne loxo yu diggu doomu la loxo yu digg doomu la mooy nit ku loxo yi nit ku mag ku rëy lool waaye nit ku loxo yi nit ku ndaw la maanaam loxo yi nit ku yem te loxo yooyee doo ko ngëpp doo ko tàllal maanaam loxo yi nit loxo yoo xam ne doo ko ngëpp doo ko tàllal nii nga koy def loxo yi digg doom nga duy ko ba mu fees dell benn bu ci nekk mooy benn mudd nga defaat ko muy ñaar nga defaat ko muy ñett nga defaat ko muy ñeent loolu xam mooy saa mooy ñeenti mudd ci mudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësab Malik nag dañoo fonk lool mudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax imam Malik ci jamonoom dafa am wuute bu mu wuute woon ku ñu doon wax Abu Yusuf Abu Yusuf kenn la ci dongay imam Abu Hanifa yi ñu wuute ci saax bi nga xam ne imam Malik moom la gis ñu débat ci def ci ab débat comme kenn ku ne wax lim gis ci booba euh, Haaruna Rashid moo jiite woon jullit ñi biñ defaa imam Malik saxal ne saa bii ñuy nattee te mooy ñeenti mudd mooy li jóge ci yonent bi saa sallam bi mu waxee loolu Haaruna Rashid woo jamono jooja ñii dëkkoon Madina te xam ne Madina fa la yonent bi saa mujj ndax bi mu jugee Màkk fa la nekk atte yu bëri fa la wàcc ay yu bëree bëri ci jeexit yonent bi saa sallam fa la mujj bi yonent bi saa ñoo mujj gis yonent bi saa sallam ci gàttal bi yonent bi saa sallam Haaruna Rashid woowee ñi dëkkoon dina kenn ku nekk indi sa sang mooy li nga daan natt asaka murum koon ku nekk nga ne sama baay laa ko jële mu jële ko ci baayam kii ne sama nangam kenn ku ne daal am nga ko jële ba mu egg ca jamono yonent mooy li dëpp dëppoo nag li nga xam ne imam Malik moom la saa boobu nag moom moom la natt di ko natt ba jamono jii nii waaye moom ci tënk ak li gën a yomb mooy ak réew mu man di doon ak foo mën di dem ci adduna dañ naan rek foofa nañ ko natt ci ñeenti loxo yu fees ci loxo loxoy nit koo xam ne dafa digg doomu ngëbut ay loxom tàllu ak foo mën di dem ndax euh, nattukaay day wuute ta li cosaan ci asaka mburum koor mooy lu ñu natt la waaye doonu lu ñuy peese te boo koy peese mën nga cee juum ndax ñaari ceeb képp mën nañoo wuute mën ngaa natt ñeenti loxo ci ceeb peese ko nattaar yeneen ñeenti loxo ci beneen ceeb peese ko ñu ëppante moo tax boo ko tënkee ci ay poids mën nga cee juum waaye boo ko tënkee ci lii moom doo ci mas a juum kon saa boobu mooy ñeenti mudd wa xafnatun waxidatun muddu nabi wa arbaun saaxu nabiyi alarabi wa qadruhu min u yaday saxsin wasat min kulli dahrin la min asxaasi lfard wa zaaka fi kulli zamanin wa balad wa man yaqul bi aksi sa laa yuxtamat al saax mooy ñeenti ngëbi loxo yu fees dell yoo xam ne bënkoo ko tàllaloo ko ak jamono ju mën di doon jamono yonte ak jamono ji maanaam yow tey boo boo nattee ñeent saa loolu boo ko joxee joxe nga asaka mburum koor kon loolu mooy euh, saa bi nga xam ne moo saxoon ci jamono yonent bi saa salaam léegi buñ xamee ne ci loolu lañ ko war a génne kan lañ ko war a jox dañoo wax dañ koy jox koo xam ne ñetti sart yi daje na ci moom mooy doon na ab jullit ba noppi dis gor ba noppi di aji ñàkk ba noppi bañ a bokk ci askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ab jullit mooy ab yéefar kon kenn ko jox asakay mburum koor doon na as gor ab jaam ko kenn du ko jox ndax ab jaam maanaam loruwut maanaam ñàkkut ndax ab sanga moo ko yor di ko dundal a yu ni mel te jamono jee jaamam ab jaam ab sangam moo ko yor kon moom loruwut bay aajoo ay asaka yu ni mel ab julli lañ koy jox buy as gor buy aji ñàkk fii nag ñàkk boro xam dañu wuti ci gan ñàkk lañ wax ndax faqiir mii ñuy wax fii ndax mooy faqiir mañ doon wax ci asaka jëlee mooy koo xam ne amul lu mat nisaab wala fii lañ fi jublu mooy koo xam ne amul dundub bi sub korite day mel ne ñaari wax na ci waaye li gën a siiw mooy faqiru zakat la mooy koo xam ne amul dundub at day mel ne loolu moo gën a siiw ci li borom xam-xam mooy koo xam ne lim am duyu ko ci at mi comme kooku ni nga xam ne dagan na nga jox ko asaka ni ko noonu dagan na nga jox ko muddum koor waaye it wax naa ci sart yi ne bu mu bokk ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ñooñu dañoo araamal ci ñoom lekk asaka ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci askanu yonent bi sallallahu alayhi wa te jamono euh, ja lislaam bi àtte dañoo araamaloon ci ñoom lekk sarax ak asaka ndax ñoom dafa am lu ñu leen waraloon ci beytul maal fi alal julli ñu nekk dafa am lu ñu leen fi daan jox looloo taxoon daawuñu leen jox asaka wala yu ni mel waaye nag fii borom xam ne dañoo wax ne masala mi lu mat a seetaan la xam nañ ne bépp àtte buñ àtte àtte bi day day ànd ak yilla ja tax ñu ñu tëral àtte bi al xukmu yaduuru maa te illa ja taxoon ñu tere leen asaka yi ñu lekk asaka ak sarax illa ja amut mooy baytul maal amutul jamono ji amutul foo xam dañ naan alali jullit ñi la ko aajo wala dem dem moo tax boo xam ngi gis ne <clears throat> fi jamono toll kon li li jaaru mooy képp kuñ gis ci ñooñu mu yeyoo asaka mën nga koo jox al waqtu qaadin bi jawaasi ita ali nabi min azakati qista loolu ba nga xam-xam mooy jamono lim atte mooy jox yonent bi sallallahu alayhi aw askanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam asaka dagan na am na sax borom xam-xam bu ci waxoon wax yu xoromu di wax naan euh, faidatun min atrafi tarifi sadaqatu sharifi li sharifi abaxaha nabiyu duna baasi ala suali ammihi abbasi yastanidu lmufti bisa walxaakimu lima rawahu fi lulumi lxaakimu بسند ما فيه أي هاشم كل رجاله من آل هاشم قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة وحكمه لا يعتمد nga xam ne mi ngi lay jubloo nettali benn euh, xadis boo xam ne alxaakim andi na ko ci ulumul xadis wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono bàyyam bi ndaw dañuy wax al abbas ibn abdul muttalib mas ko laaj ndax dagan na ci ñoom ñu lekk asaka mu ne mu daganal ko ci seen diggante mooy asaka sërif maanaam se diggante sërif ak daal waaw waaye li am solo mooy ba nga xam wax nañu jamono ji boo ci gisee ci ñoom ku ko aajoo man ko jox kon loolu mooy ñiñ ko war a jox mooy as gor lañ koy jox aji ñàkk euh, ba noppi lib jullit ba noppi koo xam ne amut lu mu dundee ci bu ñu jàllee ci loolu ñëw ci wan waxtu lañ koo war a joxe moom asakay mburum koor waxtoom wuute am na ci ci mësëb biir mësëb bi wuute yi ci nett lépp nag ci biir mësëb bi la mooy mësëb Malik du génn mësëb bi ñaari waxan ci ñaari wax yooyu mooy ñenn ñi dañ ñëw asakay mburum koor mi ngi war bu timis jotee timisu bi ñu suba la korite ci timis bi ci lay war ñenn ñi ne mi ngi war ci bisu korite ci fajar gi moo tax Xalil wax ci muxtasan wa hal bi awali laylatil iidi aw bi fajrihi xilaaf ndax war gi mu ngi aju mi ngi aju ci buñ nee suba la korite ci timis lay war wala buñ xëyee ci waaye wuute googu nag dafa am solo am solo su nekk ci wuute gi nekkul ne dañ ko ab wuutale rek boo xam ne nii la dem waaye am lu nekk ci ginnaaw njëriñ li nekk ci wuute bi mooy dañuy wax ne bu ñi nga xam ne dañoo gis ne asaka jooju mi ngi war ci timis buñ ne suba kon ki nga xam ne ginnaaw timis la judd maanaam te ki liir bi judd gee kooku asakay mburum koor waru ko ndax bi asaka ji war fekk na juddoogut waaye it niki noonu ki nga xam ne dafa bu dee ki nga xam ne dafa faatu gee nag kooku dañu asakay mburum koor war na ko ndax bi asaka ji war timis la woon boobu fekk na muy dund waaye ñi gis ne fajar la it dañ naan kon liir bi juddu gee asaka yi murum koor war na ko ndax bi asaka ji war fekk na mu judd wuuteeg ñi nga xam ne dañoo wax ne timis dañ ñaan ko liir bi asaka yi murum koor ko ndax bi asaka ji war fekk na juddoo kon dañoo ne wuute bi dëgg-dëgg boo ko xoolee foofu loolu misaal ñi nga xam ne dañu timis lay war la asaka yi murum koor di war ci misaal siñ galas baam bi nga xam ne dañ ko indil ab séet bi ñu ne suba la koret ginnaaw timis lañ ko ko indil kooku sët bi ñi nga xam ne dañ ne asakay murum koor timis lay war doo ko génne asaka ndax bi muy war fekk na ñëwagul ci kër gi ñi nga xam ne asakay murum koor fajar la da nga koy génne asaka ndax bi muy bi muy bi muy asaka ji war fekk na mu ñëw ci kër gi kon njariñ loolu moo nekk ci wuute bi ni ko noonu ku génn àdduna ni ko noonu kuñ fase ni noonu masalan ki nga xam ne dafa tàqali kooku soxnaan ci guddi gi ñi nga xam ne dañ naan asakay murum koor timis lay war kon dañ naan ah a génne asakay murum koor ndax démb timis bi asaka ji war fekk na tàggoobu leen ñi xam ne asaka ji dañ fajar la woon dañ naan ko ah sa soxna si doo génne asaka ndax bi asaka ji war fekk na ngeen tàggoo kon wuute boobu moo nekk ci njëriñ loolu moo nekk ci wuute boobu donte nag seen wuute boobu dañu day delluwaat ci xadis bi ni ko déggee woon ndax yont comme xadis bi ma mooy farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitri ñu am ci min ramadana ñi dañoo gis ne ndax asakay mburum koor jaam yàlla la goo xam ne ci koor gi la kon su boobaa timisu koor gi ci koor gi la ñii ne jaam yàlla la goo xam ne ci iid la aju ba tey day wuute bi day delluwaat rek ci niñ dégg hadis bi waaye li ci am solo mooy wuute bi moom njariñ li mooy loolu rek léegi nag comme loolu mooy ay waxtoom waxtu woowu nag dafa am ñetti xaaj dafa am ñetti xaaj mooy daa am lu wax waxtul jawaaz am nañu wax waxtul wujub am na nañu wax waxtul qada waxtul jawaas mooy waxtu woo xam ne bu xasee ba jot dañ naan la daggal na nga génne asaka ji soo ko soo ko génnee dana wér soo génne asaka ji dana wér te mooy bu korite gi desee lu mat benn fan ñaari fan ñett saa soo génne asaka ji wér na waxtul wujub dañuy wax ne mooy bu fajar xasee ba jot ba baa ñuy julli ji mooy waxtu waxtu ci lañ bëgg nga jot nga def ko ci lañ ko sot soo ko xasee ba weesule def nga luñ sib ba baa timis di jot boo ko xasee ba yóbbu ba timis nag def nga luñ xaram li xas ba weesu nag mooy waxtul qada moo tax asakay mënum koor du wàcc nit ki mukk kooku xas ba man boo ko joxewut du la wàcc nit ki faatu sax dañ ko war a génne ci li fi bàyyi nit ki nga xam dafa amoon ay asakay mënum koor génnewu ko wax nañu dañ ko war a génne ci alal ji mu fi bàyyi nga ndax nekkul luy wàcc ndax farata la te farata li koy tax mu wàcc nit ki mooy def gi kon loolu mooy jëmmi li ci li ci nekk mooy du wàcc kenn moom asakay mënum koor waaye buñ egsee ci ndax joxe des na ko sañ joxe loolu dana ci egsi ci mujj gi comme wax naa léegi ne waxtul jawaas mooy joxe ko lu jiitu ñetti fan asaka jooju nag képp koo xam ne it yéexe nga koo génne ba waxtu wa wees def nga lu xaram te it du tax mu wàcc la te it waxoon naa léegi xadis abdullahi xadis abdullahi ibn abbas ci sunanu tirmisi mu ne euh, sunan xaakim abu daawud ñu bëri nettali ko mu ne yonent bi saa sallam farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat al fitri tuhratan lis-saa'imi min al-laghwi war-rafas wa tu'matan lil-masaakiin fa man addaaha qabla man addaaha qabla salaati fa hiya sadaqatun maqbuula wa man addaaha ba'da salaati fa hiya sadaqa fa hiya zakaatun maqbuula wa man addaaha ba'da salaati fa hiya sadaqatun min as-sadaqaat mooy asakay murum koor Yonent bi saasam da koo farataal ngir muy laabal koor gi waaye muy dimbali miskin yi waaye nag képp koo xam ne joxe nga ko njëkk ngay julli ci bala ngaa julli ji joxe nga ko joxe nga asaka juñ nangu képp koo xam ne julli ji nga ba ñëw doo koo joxe la nga def baax na waaye nag amut taxatu taxawaay taxawatu taxawaay parce que doonu as ab saraxe la nga jox moo tax Usmaan ma fan wax ne ci jamonoom am na benn bis mu génne asoke muuram jox ko soxnaam ngir mu génne ko daa dem juri bi mu ñëwee laaj soxna si na ko ana ana la mën a joxoon ndax génn soxna si na ko ah ko fàtte woon dégg na daal dem jënd daal a ay dund gu bëree bëree bëri xéewal yu bëri ñam yu bëri dem boole ko asaka ji dem joxe bi mu noppi jóge fa dem jox wax ko yonent bi sallallahu alayhi yonent bi sallallahu ah li nga def de baax na lool dañ ci am tuyaaba ju bari waaye nag du tax nga am yoolu génn asakay murum koor kon génn asakay murum koor bala ngaa am tuyaaba yi génn asakay murum koor day fekk nga génn ko fajar ba diggante fajar ak julli diggante boobu boo ko fi génnee am nga asakay murum koor soo ko boo koy boo demee nag bu julli ji ma ñëw du ko génne ab sarax ab sarax nga rek ab sarax kon loolu mooy ci tënk li nga xam ne mooy ay atte asaka yi murum koor ak yi ci yi ci war a wax mu des nag yi dagan yi nga xam ne dagan na ci asaka murum koor nit ki def ko yooyu ca dagan ba ca jiitu mooy génne ko avant ko korit ci misaal tey la altine korite gi àllarba la wala alxames ci misaal rek sañ koo génne suba maanaam bu korite gi desee ñaari fan ñett fan mën nga koo génne wala ajuma wala gaaw ci misaal sañ nga ko génne lool nag am nañ ci cosaan cëslaay loo xam ne mi ngi jóge ci xadis Abdullah ibn Umar ma Abdullah ibn Umar daana jël aska di ko génne di ko jox ki ko daan dajale foofu nag wuute da ci am xale dafa wax ne wa ixraajuhu qablahu bi kal yawmayni bi mu tudd ci tax yi tax maanaam yi daggan ci asakay murum ko dafa wax ne wa ixraajuhu qablahu bi kal yawmayni mooy ixraaj zakatul fitr qabla euh, yawmil fitri bi yawmayni aw salaas aw yawm mooy génne ko njëkk bis ba benn fan wala ñaari fan wala ñett masala dafi nekk mooy bu fekkee ne man damaa génn asakay murum koor njëkk korite ndax dama koy jox miskin mi wala dama koy jox ki koy dajale ba tey wuuteñ ci xale dafa wax ne wahal mutlaqan aw aw li mufarraqin tawilaani ndax mën nga koo jël jox ko carrément miskin bi wala nga jël jox ko ñi koy dajale comme ci misaal euh, baytu sakaar ñi nga xam ne dañuy jël asaka yi di ko dajale ndax man tey jii mën na maa génn asaka dem xool ko xam ne am miskin ma jox ko wala se dama koy génne dem jox ko baytu zakat ñoom bu ko rek jotee ñu dem jox ko ñu ko aajowoo xale nee na taawilaane ñaari taawilan mooy dañuy wax ne bu fekkee génn nga ko jox ko miskin bi te korite jotagut mu sànk asaka jooju baaxut da nga koy defaat maam bu fekkee korite jotagut nga génne ko dem jox ko miskin bi miskin ba lekk ko wala mu réer wala mu sànk dañ naan la da nga koy génnewaat ndax waxtoo jotagut bu fekkee nag téye na ko jox nga ko mu téye ko ba waxtoom jot mu doog a sànq ba tey baax na su boobaa baax na wala sax yow bàyyi nga ba bis ba jot nga génne ko mu sànq ba tey baax na waaye boo ko njëkk génnee njëkk bis yi moom njëkk bis ba moom loolu moo ci nekk ci àtte mooy bu réeree bu ba réerelee wala mu sànq ko dañuy wax ne da ngay génne waras wuute nag bu fekkoon da koo jox ñi koy dajale su boo ko joxee ñi koy dajale foofu la wuute am ñi ne bu réere ndax daga na wala dana dana doy maanaam dootoo ko génnewaat ñi ne bu ko war a génnewaat Euh, borom xam daa wax ne asaahu in xuddima lil miskini fadaa fi taqdimihi fi lxiini qabla xululi zaman al ixraaji fa xayru mujziin ala alminhaaj wa in yakun min baxdi ma xalla zaman bu fekkee nag génn nga ko ginnaaw ba nga xamee ne waxtu wa jot na fiihi xilaafu alulamaai faalaman wa in yakun min baxdi ma xalla zaman fiihi xilaafu alulamaai faalaman bu fekkee génn nga ko ginnaaw bi nga xam ne euh, euh, waxtu jot na nag فيه خلاف العلماء وإن يكن وجوبه تعلق فيه diyaaxu diyaaxu la shay fi fii ma da mu fekkee da nga bàyyi ba waxtu wa jot mooy asaka ji war na tey ji suba la korite wala tey ñu ngi ci bisu nga génne ko di ko joxe mu réer doo ko génnewaat moom xasee ba war ci yow nag nga génne ko mu réer moom wala mu sànk wala nga teg ko fenn ñu jël su boobaa doo ko génnewaat waaye bu fekkee da nga ko génne jëkk njëkk waxtu wa mu réer da nga koy bu fekkee da ko génne njëkk waxtu wa yoon jox ko nit nit ko réer maanaam bu fekkee da ko koo jox wakiil mu mu war koo jox miskini kooku sànq ko dañuy wax ne nag su boobaa euh, doo ko génnewaat zakatu fir fitrin ursilat maa rasul fa daati damaanu an haasi yasul asaka moom ko boo ko joxoon génne woon ko jox ko ki koy yóbbu ndax dañu dañuy wax ne asaka ji bu fekkee dañ koy jël di ko yóbbu ci yeneen bërëb yu sori ngir ne fi ñu nekk daa am ñu ko fa aajowoo wut su boobaa xel euh, xel xelu na nga génne ko avant ngir ñu mën koo dajale def ko ci fi ñu koy def yóbbu bu fekkee ne da nga koo joxoon ñu koy yóbbu ñu réeral ko su boobaa moom dara du la ci waras kon bokk na ci yi dagan ci asaka mooy nga génn ko balaa waxtu wa loolu benn la ci ñaari bi mooy bokk na ci yi dagan mooy nga jël benn asaka jox ko benn miskin wala nga séddale ko ay nit li ko noonu nga jël asaka yu bëri jox ko benn miskin wala nga séddale ko ay nit ci misaal man damay génne asaka sama bopp benn mooy ñeenti mudd mën naa koo séddale ñu bëri mën naa ko jox kenn ni ko noonu bu ma génnelee sama bopp génne sama waa kër loolu ma génne mën naa koo jox kenn mën naa ko jox ñu bëri loolu moom loo ci def baax na damaa génne waa kër gi masalan fukki boppang ma génne asaka jëpp dajale ko mën naa koo jël jox ko kenn mën naa koo jël séddale ko ni ko noonu man su ma génnee sama asakay bopp mën naa koo jox kenn mën naa ko séddale yooyu bokk na ci daggan waaye it bokk na ci daggan mooy génn ko ca la gën a rafet ca la ngay dund ci dund dëkk maanaam waa dëkk ba lii la ñuy dundee loolu ñuy dundee nga xoolaal la ca gën a rafet nga génne ko ci su boobaa dagan na loolu dafa bokk ci eh, yi dagan waaye boo ko génnee ci la waa dëkk bay génne ba tey eh, baax na maanaam génne ko ci la gën a la gën a suufe daa jub maanaam la gën a suufe ca la gën a rafet ci la waa dëkk bay dundee maanaam ci misaal waa dëkk bi dañuy dundee ceeb ceeb bi am na ceeb bu rafet lool am ceeb bu digg doomu nga génne ko ci ceeb bu digg doomu dagan na lu dul ne nag la tax nga def ko loo la tax nga génne ko ak nee ko waral wala ak yu ni mel su boobaa foofu masalan fi mooy asaka bu fekkee li nga génne daa wuuteeg li nit ñi génne foofu dañu xool benn li nga génne daa gën a rafet wala li nga génne daa yem ak li nit ñi génne li nga génne daa gën a suufe li nit ñi génne li nga génne bu gënee baax li nit ñi li nit ñi génne su boobaa li nga def doy na rafet baax na te sax sopp nañ ko su fekkee li nga génne ak li nit ñi génne doo nga yem loolu moom amul leen lu ñu ci wax mooy li la digal nga def bu fekkee li nga génne daa gën a suufe li nit ñi génne nag foofu ñeenti masalank li tax nga génne li gën a suufe dañ koy xool bu ñu xoolee gis ne dangaa ngaa lot ba mënoo génne li nit ñi génne ñu ne su boobaa asaka ji baax na bu fekkee da ngaa nay asaka ji baaxut bu fekkee da ngaa gi maanaam loolu ngay dunde moo tax nga génne ko ci lu mel ne koo xam ne dafa jóge woon ca kaw ga dem ci réewu taax ci misaal wala mu tukki fenn lam da di daan dunde cere ci misaal wala ni mel ñooñu di dunde geneen dund moom mu génne ca cere jam daan dunde ngeen ne da ko baax daa baaxu dunde loolu te fekk la dunde fay moo gën a kawe su boobaa ba te asaka bi baax dañ naan ko jëndal lii dëkk bi dunde nga génne ko ci muy ñaar mooy da def da koo génne ca lu wuute lii dëkk bi génne ngir ak nay wala ngir aada wala sax da koo def ngir damm boppam ngir damm bopp mooy ngir dëddu wala xeet yooyu maanaam tey moom dafay bàyyi li nit ñi di dunde di dunde dund gu oyof ba tey du ko sañ a génne ca loola muy dunde kon daal faaw rek da koy génne ca la waa dëkk bay euh, dunde moo tax ba ma xam ne wax naan wa man yakun wa man yakun xtiyaatuhu wa man yakun xuutuhu axsana min wa man yakun xuutuhu axsana min gaalibi aw xuuti jamici lbalad nudiba an yuxrija min xuutihi wa yujziu lixraaju mimma aad loolu mooy masala bu njëkk mi wa in yakun wa in yakun xtiyaatuhu mislahu fa amruhu laysa bihi min awat wa man yakun xtiyaatuhu duunahu lam yaxlu min arbaatin sa tuad fa in yakun wa in yakun zaaka li suxin bihi lam yuji lam yujihi maxtaata fiima warad wa in yakun zaaka wa in yakun wa in yakun zalika an ajzi wa in yakun zalika an ajzihi ajzahu al ixraaju mimma wajad wa in yakun zaaka li suxin bihi lam yujzihi al ixraaju fiima warad wa in yakun zalika an aadatin lam yujzihi aydan ala al muctamad wa in yakun min kasrihi nafsahu lam yujzihi aydan fa xuzhu tufat mooy bu fekkee ne da koo génne ca la gën ca la waa dëkk bi génne def na lu baax luñ sopp bu ko génnee euh, ca la tolloo waa dëkk ba def na lu doy bu ko génnee ca la gën a suufe ca la waa dëkk ba bu fekkee ak ñàkk mënut a génne waa dëkk ba génne loolu la am lam def baax na bu fekkee dafa nay wala dafa aada woo dunde lool wala dafa damm boppam lam def dara du ci baax bokk na ci dagan ci askan askan murum koor ba tey nit ki tukki waa këram génneel waa këram génneel ko dañuy wax ne bokk na ci yi dagan waaye foofu it dafa am benn ay masala yu fi masala mooy nit ki ñu génneel asaka jamono ju nekk bu ñu koy génneel asaka dañ koy génneel ca la muy dunde moom waaye duñ ko génneel ñun li ñuy dunde loolu misaalam mooy maa ngi fii am ay mbokk yu nekk bitim réew ma bëgg leen a génneel asaka yi murum koor du ma leen génneel ci ceeb bi ñuy dunde Sénégal waaye ñoom la ñuy dunde laa leen génneel waaw ba xam laa waxoon wa waxuuta man tuxriju anhu tabiri wa xaalatal jahri wa faqdi axiri mooy mooy booy asaka da nga ciy bàyyiwaale xel dundub ci ngay génneel soo réeree la muy dundee nag wala maam jëmmi waa xamatoo ci moom dara su boobaa nag bul génne asaka ji na bàyyi ba euh, ba xam ko waaw borom kafaab loolu la waxoon fa fal asaru fa euh, mooy la gën a siiw ci ñoom mooy dañuy yeexe génn gi ba am ci lu ñu leer xamuñ ba xam mi ngi dund wala dund wala xamuñ fu nekk wala sax moom la muy dund xamuñ su boobaa nag dañuy bàyyi noonu waaye duñ ko génne asakay mburum koor waaye daal man bu mu doon génne asakay mburum koor di ko génne sama njaboot te man fi ma nekk ak ñoom fi ñu nekk wuute la ma leen di génneel mooy ca la ñu dunde ñoom loolu misaalam mooy ki nga xam ne dafa am ak njaboot gu nekk bitim réew moom mi ngi Sénégal am ak njaboot gu nekk bitim réew am ak njaboot buy génnee njaboot ne Sénégal da leen génne ci li waa moom it mu génne ci li dunde waaye njaboot ga nekk bitim réew nag da leen di génneel ca la ñu dunde foofu bu amee fii baax na bu amul borom xam dañuy wax ne na leen bàyyi ñu génne seen suñu amul nag suñu amul luñ génne foofa nag ci la masalam génne asaka ci xaalis doog a mooy bu fekkee dem nga ba mënoo li ñu war a joxe mënoo ko génne su boobaa ñetti waxan ci te mooy loolu mooy dal ki nga xam ne am na lu mu génne asaka am na xaalis waaye jimmi ñam wi ci boppam la amut te lool mën naa dal nit wala bu génne mën naa wala bu génne du ko am ko ko jox loolu man naa mën naa mën naa dal nit su boobaa ñetti waxan ci ñeen ñeen ñi dañ ne da koy génne ci xiima ñeen ñi da koy wàcc ñeen ñi da koy yeex da koy génne ci xiima wa baaduhum xiimatuhu daraxaha ñeen ñi ne da koy wàcc ñeen ñi da koy yeexe ba mën koo génne loolu mooy li nga xam ne dal na nit koo xam ne am na lu ko génne waaye amul lu ko maanaam masan tey mi ngi bitim réew ñam wa bu ñu war a génne asaka mënu koo jënd wala yu ni mel kon su boobaa ñetti masala yi moo ci ne ñeen ñi dana ko génne ci xiima day jël xaalis rek xool bu ko doon génne li muy jar mu jox ko ci ñeen ñi day xool euh, maam da koy wàcc ñeen ñi da koy yeexe ba man koo génne kon yooyu mooy yi nga xam ne dagan na ci asakay murum koor nit ki mën na koo def bu ñëwee ci yiñ sopp te buñ luñ sopp bu ñu ko waxee mooy loo xam ne boo ko defee moo gën boo ko defee moo gën da nga ci am tuyaa boo ko deful nag dara du bokk na ci mooy nga génne ko ginnaaw bi fajar jotee njëkk ñu julli diggante boobu lañ bëgg nga génne ko ci bi nga xëyee ba baa ngay julli ji nga génne ci asaka ji doo julli ji waaye it génne ko ci la gën a rafet ci la ngay dund waxoon naa ko mooy li ñuy dundee nii nga xool la ca gën a rafet génne ko ci waaye it bokk na ci ñu sopp mooy génne ko ci koo xam ne bokkutoon ci ñu ko war a génne ngir ne daa ñàkk maanaam faqiir bi nga xam ne moom wurta génne asaka yi mënu koor waaye bisu korte gi jox nañ ko asaka jox asaka ba mujj moom am na lu mu dundee ci bisu korte ba desal kooku bëgg nañ ci moom mu génne ko niki noonu it liir bi judd ci bisu korte bëgg nañ ñu génne ko ki tuub ci bisu korte ak xeeti mel noonu ñooñu euh, bëgg nañ ñu génne leen waaye dañuy wax ne ki tukki bitim réew te te waa këram baax koo génneel maanaam moom mi ngi bitim réew wala dafa tukki waaye moom naka jekk waa këram ñoo ko daan génneel moo xam da leen waxoon dee leen ma génneel wala daleen koo dénk maanaam euh, daleen koo dénkoon dañu wax ne kooku bëgg na ci bëgg nañ da leen a bàyyi lu ko war a génneel wala daleen koo dénkoon dañu wax ne kooku bëgg nañ ci moom moom itam sopp nañ ko ci moom muy génneel maanaam waa këram danañ ko génneel waaye moom sopp nañ ci moom mu génneel boppam ndax loolu lépp ngir xëy na mën naa am bu ñu fàtte ko wala yu ni mel kon yii yëpp euh, bokk na ci ñu sopp waaye it bokk na ci ñu ba tey mooy di sax ñàkk a dolli liñ la digal nga ñàkk ko yokk mooy liñ la wax nga génne ko mooy saa mooy àndaar àndaar jooju dañuy wax ne bëgguñ nga weesu ñeenti mudd yooy bëgguñ nga weesu sim nañ torop nga weesu ko wa karihu jawaasa masaariha xadd lépp loo xam ne sariha da ko tënk teg ko ni eh, dañoo bañ nga eh, weesu ko ka saaxi fitratin wa tasbixin warat borom xam daa wax ne wa karihu jawaasa masaariha xadd ka saaxi fitratin wa tasbixin warat yu bëree bëri mooy dañ laa wax ne boo jullee ba noppi na nga wax subhanallah fanweer yoon ñett alhamdulilah fanweer yoon ñett allahu akbar dañuy wax ne loolu sim nañ nga di ko yokk lépp loo xam ne sharia da koo tënk ci ab lim wala mu am ci lu mu ko tënk bëgguñ nga yokk ndax loolu dañuy bañ nga ñu ubbi buntu soppi mbir yi ni ko sharia tënk ñu di ko soppi kon loolu day bokk ci yiñ sib nga yokk waaye bokk na ci yiñ sib ba tey mooy nit ki ko war a génne man koo génne yéex koo génne ba julli maanaam ba julli jot amaa nag yeex koo génne ba timis jot ci bisu korte loolu dam dafa xaram yukrahu yukrahu taaxiru taaxiru zakatil fitri ila tuluu shamsi yawmil fitri nañ nga yéex a génne asakay murum koor ba bisu korte gi maam ba bis bi nar a jeex bu bis bi jeexee nag moom loolu moom def nga luñ xaraam def nga def maam def nga luñ xaraam waaye it niki noonu it xaraam na ci nit ki mu ñàkk a asa asakay murum koor lu ne daam ngant ngant yooyu nag mooy alalam dafay nekkut wala sax génne na ko waay gisu ko kum ko jox yaxrumu taxiiru eh, taxiiru zakaatil fitri an yowmi ciidina li gayri usri ka xaybati lmaali ka xaybati zakarohu sara sarqaani sob taxariiri mooy sarqaan dafa wax ne ki nga xam ne alalam dafay nekkut wala sax faqiir bi nekku fi wala yu ni mel kooku su boobaa am na ngantal génne asaka ca bis ba ndax nit ki mën na koo génne ba noppi du ko du ko du am ko mu ko jox ndax e, yaakaar naa e, kuy jàng irwaa ndarim da nga gis sa xissa boobu suñ mun lam ñoom da nga doon netti suñ bu mag mi mooy ba korte ga ko fekkoon ca bis ca tukki ba te waxoon ne Euh, mooy xasida ga mooyoon def ko euh, zakaatul fitri ndax ñam ña ko wóoroon daanaka ku ci lekk asaka yi mënu ko euh, gisu ko ndax ay daanaka ay tubaab lañ ak yëfar yu ni mel xista ngi ci irwaan na dim kon léegi nit mën naa génn asaka murum bor ba noppi du am ko ko ba borom xam dañoo wax ne bu fekkee génn nga ko te amu koo ko jox ko teg ko fenn rek waaw man lam yejib masrifaha asalaha zakaraha za za uqiital walaha mooy boo amul koo ko jox denc ko fenn kon ci gàttal loolu mooy zakatul fitri ak li ci aju ci ay at mu des nag ab masala boo xam ne kenn mun a wax ci asakay mburum koor fi jamono toll te doo ci wax mooy ndax dana dagan ci doomu aadama bi mu génne asakay mburum koor def ko xaalis maanaam tey man xëy naa war a génne asakay mburum koor ma bañ a joxe ceeb waaye ma jël xaalis joxe loolu masala la boo xam ne mel na ne jamono ji wuute bëri na ci loolu ba sax bëri na ñu bari ñoo xam ne bi ñu tontu laaj boo leen dee laaj dañ naan la waaw boo amut nangam mën nga koo génne ci xaalis ndax moo gën a yomb waaye dañu wax ne masala bi mën nañu wax ne ñaari pàcc la ñi nga xam ne dañoo gis ne ku ko génne ci lu dut li ñuy lekk du doy ak ñi nga xam ne dañoo gis ne ku ko génne ci xaalis naa doy ñi nga xam ne dañoo wax ne ku ko génne ci ci ceeb rek nga ko war a mën a génne wala ci la waa dëkk bay dunde ñooñu moom mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ci ndigal yonent bi saa dañoo jàpp te la yonent bi waxoon képp koo xam ne ca ca ca lee nga wax maanaam yow jërul ñu lay utal aw lee ndax da ngaa jàpp ci cosaan bu dee ñuy wax lee nag am na ay delluwaay yu ñu sukkandiku yoo xam ne benn bu ci nekk xëy na boo ko xoolee mën naa yanu maanaa waaye daal am na ci ñoo xam ne dañuy sukkandiku ci xadis uxunuhum an an tawaaf fi hazal yam donte xadis la boo xam ne daif la ndax euh, xadis bi am na ci sanad bi ku ñuy wax abu maasar najih ibnu abdurahman as sindi te moom dafa demoon bu mujj doon mag di jaxase naag di jaxase teewut xadis biit am na beneen euh, riwaaya waaye riwaaya beneen biit sanad boo xoolee dafa am ku ci nekk ñu wax waaqidi te waaqidi moom dañ ko tuumaaloon ne daa da daan sosal yonent bi ay xadis waaye ci gàttal xadis yi nga xam ne ñooy dëgëral ne sañu ko génn ci lu la ñuy dunde moo gën a dëgër moo gën a wér léegi nag ñu gis ne bu fekkee maslaha maslaha moo waral nga di ko génnee ci xiima maam nga di ko génne ci xaalis su boobaa may nañ may nañ ci misaal da nekk foo xam ne da ngaa nekk bitim réew ci misaal bitim réew moom mënu faa joxe ay nit ay ceeb ay pepp ay dugub fa foofu wax nañ la may nañ la nga génne ko xaalis wala yu ni mel boo ko am nga xaalis mën nga koo génne ci kii bi waaye jëmmi ñam yi ci bopp nga amut comme li ma waxoon fii léegi te ma waxoon ne ñett yoo xam ci su boobaa maye nañ waaye nag teewut it ñi nga xam ne def nañ loolu it lañ def mënees na koo jàppe jëf ju baax ndax ay boroom xam-xam wax nañ ko Abu eh, ngiram Euh, wax na ko waaye bu dee ñu ëpp ci waa Malik ñu ëpp ci waa Shafiiya ñu ëpp ci waa Xanaabila mën nga ne bu doon jullit ñi bu ñu doon cent pour cent quatre-vingt-cinq pour cent li ñu gis moom dañ ne parce kenn du ko génne ci lu dul waa dëkk bay boo ko Malik sax ci mu dawal dafa wax ne ku ko ci lu loolu na ko génnewaat maanaam des naa mat <coughs> waaye ci jamono ju mujj ji ba xam ne dañuy gis ne bu ñu xoolee jàpp ne xëy na masla li li jubluwaayu sariya mooy nit ki am lu mu jàpp ci bisu korite kon dañu gis ne mën na si koo jox xaalis muy loo xam ne wax la joo xam ne xel nangu na ko xam daa wax ne laa tujzi ul xiimatu an zakati fitrin wa ma laysa bi quuti naati illa bi waxti shiddatin yamtaniu ixraajuhu minha wa laysa yamnahu wujubaha dayn wa qiila bal xasal tashiru minhum tashiru kullin minhum qad intaqal ñaari wax yëpp benn bu ci nekk ay borom xam-xam wax nañ teg nañ ko ci ay teguwaay yu wér waaye nag comme ñaari wax yu nekk rek day am bu gën a wér li gën a wóor te gën a dëgër moom mooy ne koy génne da nga koy génne ci dund li fi am nga mën nga koo génne ci dañuy dunde génne ko ci boo ko amul nag nga doo ko mën a génne ci xaalis te it boo ko génnee ci la ñuy dunde yow da nga mën a dogu ci ne def nga li ñu digal wuuteeg boo ko génnee xaalis mënoo cee dogu ndax da ngaa def li jàpp li dëppoog sa xel rek ak li nga jàpp ne xëy na baax na yàlla nag suñu borom lay xool yéene yi nit ci kon loolu mooy rek daanaka duñ ci xuus lu bëri ndax masal la mu bari ay wax yoo xam ne daanaka sax wax ji jërut ñu ci bari ndax euh, cosaanal masal bi leer nañi kon ci tënk rek loolu mooy asakay murum koor ak li ci aju ci ay atte wax nañ atem ne farata la ci alxuraan ak ci sunna euh, ki mu war mooy nit ki jullit bi te am ki nga xam ne am na dépasse bi su farata la war mu génne ko boppam génneel ko euh, ñaari waajur mi ko mënta génne ak soxnaam ak soxna yu waajuram ak ay doomam yu góor bi baa ñu mën a liggéey doomam yu jigéen bi baa ñu am borom kër ñooñu la ko war a génneel wax na yi ne ñu ngi war a génne ci juróom-ñeent yi juróom-ñeent yi li fii mi ngi am wax nañ ne nga ko war a génne ci juróom-ñeent yooyu bu fekkee amut nag la ñuy dundee ca nga koy génne am na ñu ne sax même bu amee te ñu te ñu bàyyi ko fi di leneen ca la ñuy dundee nga koy génne te lool it la joo xam na ne borom xam-xam yi dëgëral nañu waaye wax naa yi ne loolu la ngay génne jan jamono lañ koy natt mooy jamonoy koor maanaam dañu xoor koor li nga ëpp dundee waaw waxta waxtabaru shahra wa quutal baladi la shaxsa wal aama ala al mutamid la borom xam-xam waxoon mooy booy xool na nga xool weer wa ak dëkk ba la waa dëkk bay dundee ak donte sax bukk ci juróom-ñeent yi waaye doo xool at mi lañ doon dundee ni ki noonu nit ki doo xool li muy kon loolu mooy ci tënk ñi ko war a génne ak ki ñu ko war a jox mooy ku ñàkk koo xam ne du yéefar euh, dis gor ba noppi bañ bokk ci waa kër yonent bi saa bu dee it ñenn ñi gis ne si na leen jox bu bokk boo ko joxee ñu mel noonu baax na ay ay ay ay farataam ay ay ay ay mandoobaata wax nañ ko ñu sopp ak yi ci dagan ñu ñëw ci beneen tomb bi mooy julli it ak li ci aju xam naa dañ ci tënk rek njëkkante jeeg waxtu yi mooy julli it ak julli ak zakatul fitri ñoo bokk benn ane wala benn at boo xam ne ci lañ leen farataal wax naa ne ne jullik sakaatul euh, fitri jullik euh, iit euh, ak jullik tabaski ak julleek néew ak yu bëree bëri ci ay atte suñu borom mi ngi ko farataal ci atum ñaareem ci gàddaay gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba tax ba ba dëkk fa nag ba ma ne keree na ab ci la suñu borom commencé wàcce atte yi jullik it moom ab atteem sunna la su feddaliku ba noppi lu sunna wu ci nit ku nekk xalil daa wax ne sunna li ay li aydin rakaataani sunna nag suñ la ko doon xam ne dañ naan la mooy loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko saxal ko di ko def ba jóge fi borom maraqison daa waxoon ne wa sunnatu ma ahmadun xad waazaba alayhi wa zuhuru fihi wajaba sunna mooy loo xam ne yonent bi def na ko di ko def ba jóge fi nga xam ne bu koy bàyyi benn yoon la koy bàyyi wala ñaar loolu mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom jullik it ba ni mu fi jógee mus da ko doon da kon jullik it sunna la waaye sunna sunna la soo xam ne sunna la ci kenn ku nekk buñ nee sunna la ci kenn ku nekk mooy nit ki nga xam ne dafa demoon di ko julli ji ñu raw ko sax dañ naan bëgg nañ ci moom mu julli am na ñoo xam ne dañ sunna kifaaya la bu ko ñenn ñi defee mu wàcc ñeneen ñi waaye loolu it eh, xëy na eh, wax ji ñuy wax ni mooy li gën a dëgër ci mësëb bi moom nag sunna la bokk ci sunna yi feddaliku sunna yi feddaliku ci eh, mësëb Malik dañ ci tudd ñeent dañ ci tudd witr moo ci jiitu salaatul iidayni mooy julli Tabaski ak Korite ñoo topp ñoom ñaar ñoo yem ci dégare benn jiitu sa morom ñoom ñaar ñooy àndandoo doon ñaareel bi ñetteel mooy jullik muuru weer ñeenteel mooy jullik muuru jant xalil daa wax ne wal witru sunnatun aakadu summa iidun summa kusuufun summa istisxaawun borom asal masal daa wax ne al witru ulaaha wa minha arfahu al witru ulaaha wa minha arfahu ginnaaw bi nag mu doog a tudd yi ci des kon Euh, witr mooy sunna si gën a feddaliku waaye nag ginnaaw bi mu bi ci topp mooy julli it julli it tabaski ak julli it kon ñoom ñaar ñoo yem benn degré benn ci ñoom ñaar gën a feddaliku moroom ci moom ñu ngi ko farataal ci atum ñu ngi ko sunnaal ci atum ñaaree mi wax naa ko ab atteem mooy sunna la ci képp koo xam ne bëgg na maanaam da danañ la digal nga julli ji ajjuma képp koo xam ne julli ji génn julli ji ajjuma war na la farata la ci yow sopp nañ ci yow wala sunnaa nañ ci yow it bu bis ba jotee nga julli ji it julli it nag euh, julli euh, ajjuma nag am na ay sart ginnaaw bi nit ki doone ab julli nekk mu kàllaf nangam dañ ci sartaat mu doon as gor ba noppi nekk muqiim nekk koo xam ne sax na fi fi fi ñu war a jullee ajjuma sax bu ñu ko xam ne am na fi ñeenti fan baalu ko mooy képp koo xam ne àtte yooyu daje na ci yow bu dee bisu korite wala bisu tabaski bëgg na nga dem julli ji ku dul ñii mooy ak gone wala jigéen wala jaam bu ko demee defi baax na waaye nag sa sakkuñ ko ci moom kon moom a waxtoom mi ngi commencé ci bi a daganee moom jullit it waxtu wi ñu ko sañ def mooy bisub korite bi nga xamee ne na a dagan na naafila dagan na bu ñu la waxee dañ mooy bi jant bi fenkee ba dox lu tolloog ab xeej bu njëkk dañ ko daan natt ci xeeti arab yi xeeji arab yi dañ naan la xeeji arab bu ñu ko daan natt ci misaal mooy xeej boo xam ne gudd na ci guddaay bu toll ci fukki chibru ak ñaar chibru mooy lu commencé ci baaraamu euh, day ba ci baaraam fanqarañ fukk ak ñaar maanaam jant bi tey bu fenkee fii bu xaw a daw tuuti lu tolloog fukki chibru euh, ak ñaar ci nga sañe doog a julli it foofu la waxtoom tàmbali ba digg bëccëg zawal mooy bu jant bi di jóge ci digg asamaan si mel ne luy jëm fi muy sooy jee mooy zawal ay ay boori ineer yooyu mooy waxtu tusbaar jamono yi muy jot ne diggante euh, boobu mooy aw waxtoom bu xasee ba weesu weesu na kenn du ko fay bu xasee ba weesu weesu na kenn du ko fay diggante biir saa soo fi jullee baax na ki nga xam ne it da koo tardé dem jumaa ji tar bu ko neex mën na koo julli euh, julli boppam doog dem waaye xëy na loolu mën naa bañ a doonati jafe ci jamono juñ toll nga xam ne waxtu julli bërëb bu nekk dañ koo tënk ci heure ne julli gi danañ ko julli heure sàngam su boobaa kon su boobaa daanaka amutut euh, jafe-jafe boo xam ne dañ naan kon nit ki na bàyyi xel ndax foofu dafa am waxtu woo xam ne boo ko ci julli woon du baax jamono ji jant bi fenk julli ci dafa xaraam nit ki bu ci julli woon korite wala tabaski julli ga baaxul bu jant bi fenkee rek net bay doo ba génn diggante boobu dañ koo sib ba ni jant bi eh, doxaate ak eh, lu tolloo fukki sibro ñaar wala ba mu yëkkati ko lu tolloo ko xeej su boobaa nag ñu doog a commencé julli it moo tax eh, xam waxtu wi baax ci nga bañ ko def ci waxtu wuñ ko sib waaye it niñ koy jullee moom jullik it daanaka ñu bari xam nañ ndax yàgg nañ koy julli mooy ñaar ràkk lay doon yoo xam ne ràkk bu njëkk ba da ngay kàbbar kàbbaru armal kàbbaru bi lay duggal ci biir julli gi soo noppee kàbbaraat juróom-benni kàbbar rakkam ñaareel ba da ngay kàbbar kàbbaru taxawaay mooy boo jugee taxaw kàbbar boobu ngay kàbbar ak juróomi kàbbar maanaam ci gàttal rakab njëkk bi da ci kàbbar juróom-ñaari kàbbar rakkam ñaareel bi nga kàbbar ci juróom-benn kàbbar boo ko boolee muy fukki kàbbar ak benn nga xam ne boo xam ne kàbbar yu imaam ak kàbbar yu maamum boo ko boolee ñaar fukki kàbbar doon ñaar moo na imaam day kàbbar nga kàbbar mu kàbbar nga kàbbar ba mu egg lépp boo ko boolee lay doon ñaar fukki kàbbar ak ñeent ndax yow da ngay kàbbar juróom-ñaar ci rakk bu njëkk bi kabar juróom-benn ci rakk bu mujj bi euh, niki noonu imaam kon loolu mooy ni ñu koy jullee waaye it moomin nag kàbbar yooyu ngay gis benn kabar bu nekk ci kàbbar yi na xam ne sunna la su feddi ko moo tax benn kàbbar ci kàbbar yooyu boo ci bàyyi woon soo jullee ba nopp da ngaa war a sujjóot xabla salaam ne boo doon julli tey tari nga faatiha tari woo saar boo noppee da a sujjóot ni ko noonu boo doon julli it boo ci bàyyi a a salaam bu dee imam a sujjóot xabla salaam bu dee nag yow da ngaa nekk ci ginnaaw imam imam kàbbar nga fàttee kàbbar su boobaa doo sujjóot xabla salaam ndax imam gàddul na la waaye it niki noonu it dañ sujjóot baax da salaam bu fekkee da nga ko dolli te loolu mën naa aju ci mën naa nekk bu fekkee da ngaa baamu waar kàbbari bu fekkee da ngaa baamu waar kàbbari ci misaal dañoo bëgg kàbbar yooyu ngay kabar moom ngay njëkk a def ci julli bu fekkee nit ki dafa ñëw daal di allahu akbar tari ba noppi doo ko fàttali ne foofu dañaa ko kàbbaraatal soo kàbbaree ba noppi nga baamuwaan njàng mi soo noppee nag doog a sujjóot doog a doog a doog a euh, soo noppee sujjóot baada salaam ndax yokk nga ndax yokk gi nga yokk mooy bi nga ñëwee da ngaa tari da ak saar te fekk ne waroon nga kàbbar nga fàtte ko ñu indiwaat loola kàbbar gi baa mu waa mu waa maanaam jàng la jàng la waat la li nga war a jàng ci misaal nit ki daa ñëw daa ne allahu akbar tari faatiha ak saar te daa waroon a kàbbar juróom-ñaari kàbbar bi mu fàttalikoo ne kàbbarut laataa mi mu kàbbar juróom-ñaari dañ naan ko baamuwaatal njàng mi nga njëkkoon a njàng mu baamuwaat ñu ne ko soo noppee sujjóotal ba'da salaam ndax sujjóot ba'da salaam googu mooy yokk gi nga yokk ndax jàng nga ñaari yoon ndax da ngaa njëkk jàng kabar kabar daal di jàngaat kon moom ab àtteem noonu la kooku benn mu dab imaam ci ràkk bu njëkk bi wala mu dab ko ci rakkam ñaareel bi bu ko dabee ci ràkkam njëkk bi benn mu fekk ko ci kàbbar yi wala mu fekk ko ci biir bi bu ko fekkee ci kàbbar yi day ànd ak moom kàbbar day kàbbar kàbbar arman ànd moom kàbbar li ci des mu fay loolu daanaka li ñu xam ne bu ko fekkee ci biir njàng mi day kàbbar bu noppee ànd ak imam su fekkee dafa ñëw fekk imam ci rakkam ñaareel bi kon rakkam bu njëkk raw na su boobaa day ànd ak imam rakkam ñaareel ba nopp su jugee kabbar juróom-benn kabbar ndax kabbaroon na kabbar armal ba nopp am na ñu ne sax juróomi kabbar lay kabbar ndax euh, foofu ab euh, benn rakk nga am te benn rakk boo ko amee waroo jugaat waaye dañuy wax ne fii il la doon gëm doon il moo tax atte bi wuute waaye li am solo mooy dañ ne bu fekkee benn rakk raw na ko te rakk ba ka raw da ngay bàyyi xel ne juróom-ñaari kabbar la ci waroon kabbar mooy kabbaru armal ak juróom-benn kabbar te bi mu ñëwee kabar na kabar armal bi ndax dugg na moo ko dugal ci julli gi ba noppi waaye nag juróom-benn kabar yi ko rakkam ñaareel bi la fekk su jugee day fay rakkam rakk bu njëkk ba waaye bu koy fay nag da koy fay ak juróom-benn kabar ndax kabar armal bi mu war a kabar kabaroon na ko ba muy dugg ci julli gi ba noppi ñenn ñi ñenn ñi juróomi kabar lay kabar rek euh, ndax kabaru xiyaam foofu du ci bu fekkee dafa ñëw fekk imam ci taaya nga xam ne julli gi ko dara raw ko ci su boobaa day tàmbali julli boppam waaye it na bàyyi xel ne foofu kàbbaroon na kàbbar armal ba noppi su boobaa day ak juróom-benn kàbbar julli rakka bu noppi jugaat andi rakkam ñaareel ndax kàbbar armal daanaka mooy mooy différence bi rek te kàbbaroon na ko ci jël bu jugaatee juróom-benn kàbbar lay kàbbar du kàbbar kàbbar bi ah, ah, ah, eh, koy jugal ndax rakka maanaam du kàbbaraat kàbbar armal ndax kàbbar na ko bu noppi te loolu mooy rakka bu njëkkam rakkam ñaareel mu andiwaat ko ci comme juróom-benn kàbbar moom jullit it nag euh, am na ay ñu sopp ci moom daanaka lu ci ëpp ay mandoobaat la bu dee yiñ ci si bëriwut euh, mandoobaat yi bari na trop dañ ci lim liñ ci mën lim rek bokk na ca mooy dundal guddik it mooy yiñ ci sopp nga xam ne guddi it mooy suba la korite wala suba la tabaski guddi googu bëgg nañ nga dundal ko yonent bi saa sallam nee na képp ku dundal guddi it mooy guddi korite guddi tabaski ak képp ku guddal guddik nisfu saxbaan nee na xolam du dee bis ya xolee dee borom xam ne dañoo wuute nan la lan la jublu ci xolam du dee bis ya xolee dee ñenn ñi dañu xolam du dee ci bëgg àdduna ñenn ñi du bu jamono bu demee bay faatu maanaam jaxasoo gi dal ñenn ñi du ko dal waaye li ci ma a xew daal moom kaw xaddis bi mooy ab xolam du faatu bis ba xolee faatu te mooy guddik koret ak tabaski ak guddik euh, nisfu saabaan mooy guddik fukk ak juróom ci saabaan mooy guddi gi toll ak guddi gi ñu màggal màggal daru waaye dundal googu ñuy dundal guddi gi nag ndax guddi gépp lañu war a dundal wala boo ci dundalee ab pàcc rek baax na ba nga xam dañuy wax ne lii gën a jaadu mooy boo mënee dundal guddi gépp nga dundal lu baax te dundal gi noo ko dundalee baax na waaye nag sudus bu mujj ba moom moo ci gën a rawati am na ñoo xam ne sax dañuy wax ne boo boo fexe ba julli julli mbooloo julli boo fexe ba julli julli mbooloo julli fajar julli mbooloo ci guddi gi it dundal nga guddi gi am na ñoo xam loolu la wax ñoo xam ne boo fexe ba julli julli euh, euh, gée nga julli ko ci jumaa ja wala jàkk ja fajar nga julli ko ci jumaa ja wala jàkk wala nga julli ko boole nga guddi gi li ci am solo mooy guddi bëgg nañ ko ko dundal waaye bokk na ci sopp it <coughs> mooy sangu càngaayal lu mel ne càngaayal farat buñ xëyee càngaayal nag kii war a julli jéeg ki julli jéeg ci bokk yam ndax nekkul càngaayal loo xam ne julli gee ko tax a jóg waaye day càngaay loo xam ne bis bee ko tax a moo tax ki dul julli gi sax ndaw leeg jigéen gi ci kër gi sax bëgg nañ bu ko mënee mu def waaw waaye càngaay loolu niñ ko soppee soppaan nañ ci càngaay mu doon ci ginnaaw sudus bu mujj mooy guddi gi boo ko xaaju juróom-benn xaaj xaaj bu mujj bi ginnaaw boobu lañ bëgg càngaay li nga def ko ci maanaam lu mel ne guddi gi boo ko xaaju juróom-benn xaaj diggante 5 heures 6 heures nga sangu ci diggante boobu waaye boo ko defee ci lu jiitu li eh, soppiwuñ ko foofu sopp ci bis ba tey mooy at tatayub mooy laal xet bu neex moo xam gëtt wala parfum wala cuuraay wala yu mën di doon euh, bëgg nañ nga def ko ci guddi bis bis bi waaye nag foofu dañuy wax ne ci kiñ ko bëgg mooy góor waaye bu dee jigéen ñi ñoom sa sopp ko ci ñoom ndax ñoom euh, bëgguñ ci ñoom bu fekkee ne dañuy yem ci kër gi nag moom xëy na oyof na waaye bu dañuy génn moom dañuy wax ne bëgguñ ci ñoom bis bi ñuy taar taarlu wala ñuy gëttu wala dara di jënd waaye bokk na ci ñu sopp ci bis bi mooy euh, sol yére yu bees yére yu bees ak lu mu di mel moo xam couleur bi daa ñuul moo xam couleur bu xonq la li am solo mooy jul bisu it dañoo bëgg ci nit ki mu sol yére yu bees wuuteeg bisu ajjuma bisu ajjuma dañoo bëgg ci nit ki mu sol yére yu weex bisu it solal yére yu bees bisu ajjuma solal yére yu weex dañ naa la bisu it na nga sol yére yu bees donte yére yu ñuul la wala yu xonq wala yu wert bisu ajjuma solal yére yu bees donte yëre yu màggal la dafa tilim solal yëre yu weex ci bisu ajjuma donte yëre yu weex la weex yi dafa tilim bu fekkee nag ajjuma ak bisu it dañoo daje tak mën naa am mm, xëy na ni nee suñ kanam mën naa am mu am waaye yàgg naa am yàgg naa am lu mel ne ajjuma dajeeg bisu it su boobaa nag dañ naan la booy julli ji na sol lu bees soo ñëwaatee booy julli ji it sollu weex foofu sax dañ ci leeral masala boo xam dañ ko leer ci mujj gi mooy ndax bisu it bu dajee bisu ajuma nit ki dana sañ ñàkk julli ji wala yu ni mel waaye loolu dañ ci mujj gi dañ ci yegsi ba ñu yegsi ci mujj dañ ci leeral bu fekkee ne bisu it dafa tombeeg bisu ajuma dañ naan la bëgg nañ suba gi boo mënee sol lu bees julli ji nga def soo ñëwaat booy julli ji ajuma nga sol lu yeex yeex lu lu lu lu weex Cheikh Mahamad Xasanullah mu xadim daa waxoon ne fii jumaatin xusnu thiyaabi yuraa wa huwa bayaduha aljamilu saraa walaw xadiman wal jadidu as eh, ajwadu fi liidi law lawnu ljadidi ajwadu fa yowmu jumaatin isaa yakunu iid fi awali nahaari yulbasu ljadid law xayra labyada wa labyada labis eh, fi awali nahaari eh, law annahu law annahu danis mooy bisu iit bu dajeg bisu ajjuma ci njëlbeen gi sol lu bees boo ñëwaatee sol lu weex julli ajjuma donte lu weex la daa tilim waaye noonu lañ ko bëgg su ko defee bu fekkee nag yow dangaa ngaa xotti lu bees lu weex suba tey kon daanaka mooy e, benn sànni jam jam ñaari ñaari jub boo xam ne dañ ci jam ñaari jubluwaay rek kon loolu mooy lu aju ci col googu ñuy sol nag dafa am ay atte waaye wax nañ ne ñàkk a solu ci bisu korite te man ko bokkut ci sunna te wax nañ képp koo xam ne dafa ñàkk sol lu yees te man ko def bañ koo def ngir xëy na ñàkk a sopp sunna wala dara kooku yàlla suñu borom dana ko nattoo ak ak dund gu métti ak ñàkk ak yu ni mel borom xam wax defee yër yooyu ñu ñu xam ne atte yi fi tudd tey li ñu la waxee ne zakatul fitr dafa war jullit yi dañ koo sunnaal ni ko noonu jëmmi sol doomu aadama bi sol yére yére yooyu ngay sol dafa am at ndax dafa am yére yoo xam ne dafa la nga sol am yére yoo xam ne sun sopp nañ am yoo xam ne dañ koo sib am yoo xam ne dafa xaraam am yoo xam ne am yoo xam ne dafa dagan li war ci jullit bi mu sol ci yére mooy lu nëbb ay awram ak lu ko lu ko fegal lor ba xam ne dana ko fegal jant bi ak yu ni mel ndax borom bi muy wax ak doomu aadama ci alquran di ko ñax di ko tuddal xéewal yi mu ko def da ko tuddal ñeenti mbir yoo xam ne ba nga xam ne yoo xam ne ñeenti mbir yooyu mooy cosaanul njëriñu doomu aadama suñu borom di wax ci alquran inna laka an laa tajuuxa fiha wala taara wa annaka laa tasmau fiha wala talxa surtaha laa tajuuxa mooy taxaw taxawaay ak col moo tax col googu dafa am ay atte li munta ñàkk ci ak col nga xam ne doomu aadama bu ko sol mooy lu nëbb ay araan mooy li farata faratawul ginnaaw bi nag ci lañ sopp nga sol lu rafet moo xam euh, am noddukat wala bi yàlla wala borom xam-xam ñooñu sopp nañ ci ak borom euh, soxna su borom ko ñu mel sopp nañ ci ñoom ñu sol col gu rafet niki noonu bisu it sopp nañ ko ci bu dee lu lu xat loo xam ne dafa xat di ba ay cër di marqué loolu sib nañ ko moog lu yaraax loo xam ne euh, yaraax na ba nekkul loo xam ne ma euh, ku xool dana gis li ci biir waaye xëy na ku settantal xat nag bu ñu ko waxee li mooy yëre yoo xam ne ci boppam moo xat waaye waxuñu yëre yoo xam ne xëy na ngelaw li moo moo lee ëf mu ni mel bu dee li xaraam ci ay yëre te doomu aadama war koo moytu mooy col goo xam ne xëy na da koo sol ngir puukarewu wala col goo xam ne da koo sol ngir nuru waa jëneen waa diine wala ngir nuru ñu dul ay ay ay ay ay jullit wala xeet yu mel noonu bu dul loolu nag yeneen coono yi nga xam ne yooyu atte yooyu dajoo ci su boobaa dagan na su boobaa loolu neex mën ko seetal borom kafaar bi muy leeral atte yooyu yëpp da koo tënk ci ay bay wax ne summa libaasu shaxsi taxtarihi al ahkaamu xatman minhu maa yaqi durran wa ra'ya awratin wa xazala maa li tashaabu wa xuzila maa li tashaabu indaha aw xuyala aw jaawasa alkaaba min arrijaali aw waasifan minhunna lil aali libaasu muusirin libaasan mucshari suxun wa diddu sarafin sawu sari ala daniyi alxuyala wa diddu mahanatun walmustajaabu alqasdu wa xusnuhu yundabu lilmusalli wa lilmuazinin wa zaati albaali walulama yundabu xusnu ziyi lahum liyaasumu li kaffi alxayi wa yustahabu sharcan izhaaru niam filan wa mantiqan wal afcaala bilam wa ma an ilxaaji wa ciidin xaraja fi tuuri aw fi saatin wannahyu ja an libsatin fi xusni aw fi qubxi shahiratin rawaahu ahli lfanni ama albazaatu min alimaani faman tawaada an wa suhdan ani mooy yére yi ñu sol sax ku ci liir téer lu mel ni almadaxal muy téer boo xam suñu tubaab bëri na euh, lu muy lu muy toxal di ci jële ibnul xaaj ci madaxal da ngay gis ci bëri muy dugg ci axkaamu libaas atte yére yi ñu sol di ci xuus yu ci bëri di ko dindi di ci wane munkaraat yi nga fi jamono toll yenn yi nga xam ne day wuuteeg sharia te nit ñi di ko def ci cor yi te duñ ko bàyyi xel bokk na ci yu bëree bëri daal yoo xam ne xëy na waxtu du du du ñu may ñu mën waaye it bokk na ci yi ñu sopp ci bis it mooy booy dem nga dox booy dem nga dox booy ñëw nag moom su lu neex mën nga ko war booy dem nga dox waaye booy ñëw nag su subaa nag lu la neex mën nga ko war nag waaye it bokk na ci it mooy booy dellu nga jaar te yoon wa wuuteeg yoon wa nga jaaroon ba ngay dem loolu nag dañoo wuute ci yilla ji am na ñoo xam ne dañ ne laa loolu la ndigal la loo xam ne xamuñ lu tax suñu borom digal nañ ko defee noonu rek am ñu ne am na yilla ñii ñu ne dañu comme doomu aadama bërëb boo defee lu baax bërëb boobu ëllëg yoo xam ne dafa koy seereel booy dem fi nga jaar dalay lu baax boo ñëw fi nga jaar dalay lu baax am ñu ne li tax ñu digle woon ko mooy jamono ja ñu njëkk ci xay na julli ñu néewoon nañ ak yu ni mel ñu bëgg euh, boo jaaree bu ñu jaaree fii tey bu ñee gis leen bu ñu ñëwaat fii jaar feneen ñu gis ne ñu ah julli ñu bari nañ am ñu ne dañoo bëgg boo jaaree fii xëy na romb ay miskin man leen a jox asakay mbuub koor boo jaaraatee feneen ay lu ci ëpp lu ci am solo mooy wuute nañ ci yilla ji lu tax euh, ñu wax ne booy dem na nga jaar fi dikk nga jaar fi na ci liñ sopp ci bisu korite mooy bala boo xëyee bala ngaa dem nga lekk dara euh, bu mënee doon ay tàndarma nag ñett te doon yu tool moo gën ñett tàndarma juróom-juróom ñaar boo ko amul nag nga guux ndox te dem loolu nag day wuuteeg tabaski bu dee tabaski moom dañoo bëgg nga dem ba ñëw doog a lekk te it bëgg nañ la ngay lekk mu doon caa xar ma te ca res wa même sax boo amut am xar boo réyul sax bëgg nañ tabaski nga dem ba ñëw doog a lekk dara bokk na ci it euh, yiñ sopp ci julli it mooy maanaam nit ki kiy julli ci balaa jóge këram bi dem mu bàyyi ba jant bi fenk maanaam nga bàyyi ba jant bi fenk nga doog a génn sa kër di dem lu dul nag ne fa nga jóge daa sori sori goo xam ne soo xaaree jant bi fenk bala ngaa egg fa ñu jullee danañ julli ba noppi su boobaa nag kon da ngay xool heure boo xam ne rek boo déparé da nga mën a egg fekk julli waaye bu la leer na yow fi nga dëkk jege na jumaa ji li gën mooy nga bàyyi ba jant bi fenk nga xam ne yow boo da ngay tombé daanaka ñuy julli waaye bu fekkee fa nga dëkk jóge sore na nag kon dañ la yow nattaleel xoolal sa diggante bi loo fi soxla ci waxtu rek nga bàyyi ba lu toll noonu des nga laa dem waaye it ni ko noonu noonu la ñu bëggee nit ki buy dem ci bis bi muy kàbbar di wax allahu akbar di wax allahu akbar waaye kàbbar yooyu na nga bàyyi xel ne dañ koo lënk ak maanaam digal gi ko digal nit ki dañ koo lënkale ak digal gi ko digal julli ci moo tax kàbbar googu sañoo koo def njëkk waxtu julli ci misaal su ma jugoon di julli ji te jant bi fenk gut du ma kàbbar googu digaluñ ma ko waaye kañ laa koy sañ def mooy ginnaaw bi jant bi fenk bu may julli ji bëgg nañ may wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah donte ay wuute ay ay ay anam yu wuute mi ngi ci waaye ci am solo mooy tudd allahu akbar allahu akbar kabar yooy it niñ ko bëgg mooy nit ki koy wax di ko wax moom képp ànd ko moom par kenn kenn ñu di ko wax par kenn kenn te it sopp nañ ñu xaw koo yëkkati yëkkati gu yem yëkkati gu yem mooy bëgguñ nga di ko yuuxu mel na kuy nodd waaye sim nañ lool ñu ànd mbooloo di ko waxono maam ñu doon am mbooloo di ka kàbbarandoo sim nañ ko lool sim nañ lool ñu doon am mbooloo àndandoo di kàbbarandoo lu dul ne eh, dañu egg ca jataay ba ba toog su boobaa ci borom xam-xam wax nañ ne ci waa Afrique miin nañ ci ñoom surtout ci ñu mujj ñi am na ci jenn jamono joo xam ne am na ñu ko doon defoon ci kanamu ay borom xam-xam te borom xam-xam yi e, tërëwul ne ko mooy bu ñëwee ba ci jullikaay bi ñu xaaj ñaari kuréel ñii di tudd yàlla fi bu ñu noppee ñii tudd yàlla fi waaye li am solo mooy bëgg na nit ki bu génnee di jëmi famille julli ji muy wax allahu akbar di ko wax loolu nag e, àndandoo gi di ko def wax naa ne bëgguñ ko waaye def di nga koy def ci kaw baax na ndax dana fàttali ki ko fàtte woon waaye ki ko xamutoon it mën naa mën naa gëstu boo xamee li tax nga di ko def mu di ko def waaye it bokk na ci yooyu euh, yiñ sopp mooy bu ñuy julli it ñu fexe ba rakk bu njëkk bi ñu julli ci lu mel ne sabbih isma ak xalateek ginnaaw bu ñu taree faatiha ñu tari sabbih isma xalateeka rakkab ñaareel bi ñu tari ci lu mel ne euh, wa shamsi ak wal layli bokk na ci yiñ sopp ba tey xutba ñaari xutba yu mel ne ñaari xutbay ajjuma ñu xutba ko ci it mooy xutba yooyu waaye xutba yooyu soppaan nañ ci ñoom ñaari xutba yi ñu nekk ginnaaw bu ñu jullee ba noppi moo tax bu ñu xutba woon julli bëgg nañ bu ñu jullee ba noppi ñu baamuwaat xutba bi xutba boobu it bëgg nañ bu ko imaam di def nga diglu ko wuuteeg xutba ajjuma nga xam ne da war a diglu nga xam ne ku ca wax sax wax nañ ne sa julli yàqu it bokk na ci xutba yooyu sopp nañ ci ci koy def mu ubbi ko ak allahu akbar mooy xutba yi nga di ko ubbeeg allahu akbar allahu akbar xam nga xutba ajjuma da nga koy ubbee sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bu dee xutba ajjuma nag moom liñ bëgg mooy nga ubbee ko ci allah xutba it liñ bëgg mooy nga ubbee ko ci allahu akbar allahu akbar xutba boobu nag dañuy wax ne bu ci nit ki nekkoon mu dem ba ca biir xutba ba dab ko ci lu mel ne njàppalu toj wala yu ni mel subaa dañ naan ko mën ngaa eggale mën ngaa eggale ndax amaatul lu lay xaar ci ginnaaw lu waral nga dem jàpp wuutee bu fekkoon ne day xutba ba noppi doog a julli su boobaa dañ naan ko damay yeesal wax sa njàpp ndax julli gi ne sa kanam moo tax waaye bu fekkee julli na ba noppi di xutba bu njàppam tojee su boobaa nag mën naa dem mën naa eggal xutba bi rek su boobaa dem jàpp bu dee bisu korite nag bëgg nañ ci xutba bi imaam jagleel ko maanaam lu aju ci attay mburum koor leeral ko nit ñi ak nan lañ ko war a génne ñu ni mel ko génne dem génne ji ko ñi nga xam ne dañoo jàpp ne asakay mburum koor lu oyof la daal loo xam ne bu la neexee def la bu la neexee doo def ñu xam ne demewut noonu bu dee bisu iid la mu mu leeral attey iid at ya ca aju yu ni mel boo defee ponk bi may tënkee point yi may tënk rek ñaar la ba ci jiitu mooy julli googu bëgg na ñu di ko jullee ci ab bayaal ab bayaal bu ñu ko waxee mooy bëgguñ ñu di ko jullee ci biir jàkka wala biir juma lu fii am nañ ab bayaal lu mel noonu moo tax ngay gis julli iit duñ ko jullee ci biir jumaa ji wala ci biir jumaa yi ñu di ko jullee ca fee ca kanam mooy ca jullikaay ba li tax mooy dañoo bëgg ab julli ñu di ko jullee ci ab bayaat te bañ koy jullee ci biir jumaa kañ lañ koy jullee ci biir jumaa nag mooy bu ngànt amee soo xam ne amul fuñ ko jumaa dong maanaam bi dong lañ am mooy jàkka ji wala espace bi am mooy jumaa ji suba maanaam sañ ñu ko fay waaye it loolu it dafa am ay atte yi ci am mooy jullit it boo ñëwee doo naafile da nga ñëw rek toog kenn du naafile waaye loolu kan lañ kan lañ la koy mooy dañ naan la bu fekkee ci bayaal ba ngay julli jee ca biti su boobaa moom boo ñëwee da ngay ñëw toog waaye nag bu fekkee ci biir jumaa nga koy jullee wala ci biir jàkka ma sant yow yaa ngi jullee ci biir jàkka ji wala ci biir jumaa ji su boobaa boo ñëwee bala ngaa toog sañ ngaa naafile ci sartu waxtu wa ngay naafile waxtu woo xam ne kenn danañ ca naafile bi ñuy tëj bi ñuy tëjee waxtaan wi te mooy bisu it su dajeeg bisub ajjuma ndax ku julli ji iit ba ñëw julli iit googu dana la doy wëlif ngay julli ji waat ajjuma wala déet bu dee mësab Maalik moom du doy mukk du doy mooy ci julli ji it daal di ñibbi këram bu julli ci ajjuma jotee day demaat julli ji ajjuma waaye julli it gi du tax julli ajjuma wàcc ko ni ko noonu julli ajjuma gi du tax mu bañ a julli ji ngir julli ajjuma ndax benn bu nekk ci ñoom ñaar dañ koo sàkku ci moom mu def ko kon ci tënk daal loolu mooy linga xam ne waajaloon nañ ko ci eh, thème ci zakatul fitri wa salaatul iidayni ahkaamu adab di sant yàlla baax lépp loo xam ne jum na rek ci kàttu suñu borom la ak tawfee xam lépp loo xam ne nag xëy na dëng na wala ñàkk cee leer wala wuute nag dëgg-dëgg ni mu nekk ci téere yi xëy na gàttañ lu doomu aadama la ak mën a fàtte uh, in uridu illa islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatu uh, jërëjëf sëñ Ibrahima ci waxtaan wu am solo bi waxtaan wi am na solo lool yaakaar naa ñi nga xam ne ñu ngi ko doon teewlu te di ko bàyyi xel jëlee nañ ci ay bind yu bare bare bare bari ndax waxtaan wi xam naa ci gàttal rek dañ koy tënk ndax mel ne li ci mat leeral lépp leeral nga ko lu ayu ci muurum koor ak lu ayu ci salaatul ayit ñu ma ko waxe woon ci bi ñuy tàmbali muy loo xam ne dafa lëkkaloo koor gi nga xam ne ci la ñu nekk ni ko sëñ Ibrahima waxe manees naa wax ne waxtaan yi ñu fi waxtaane yépp am na solo waaye xëy na am na ci yoo xam ne buñ ko waxtaanee ba dégg ko ba jël ci bind yi njëwari jënd mën nañoo dem ba ca kanam ñu si doo ko jariñu waaye waxtaan wi moom dañ ko war a dégg war koo daal di jëfe suñu kanam fii ak fan léegi di ñëw ñu war koo kon waxtaan la woo am solo tàmbalee ko rek ci xam ne muurum koor farata la joo xam ne farata ju sax la ñu bari ci noonu nag day mel ne muurum koor doo xam dañ koo woyefal doo xam dañ ko xeeb daanaka yitte yi ñu ko war a dëgg dëgg dëgg duñ ko ko jox dañ koy jàppe loo xam daal day mel ne ku mën a def def ku mënul bàyyi waaye buñ jugloo waxtaanu si Ibrahima bi danañ gis ne muurum koor farata la ju sax joo xam ne da war ab ci ni mu ko indee ci ay tegtal ci alquranul karim ci waaye na xadaf la xam ne zakka borom xam-xam yi bari ci mufassiruna yi wane nañ ne muurum koor la ci alquran jublu xus mi ne mu walihim sadaqa la itam indi na wane ne imam Malik wax na ne asaka yëpp la suñu borom jublu ba muurum koor moo farataal muurum koor ci ndigalu suñu borom farataal ko jullit ñëpp kon day jaadu ci jullit ñi ñu am ñu jàpp ne muurum koor farata ju war la yoo xam ne du lu woyof loo xam ne rek xëy na xam naa koor gi moo rëy ci ñoom ba jàpp ne maanaam ba tax nit ñi niñ ko war a jàppee jàppee wuñ ko noonu waaye ki digle koor gi rek moo ko digle te sëñ Ibrahima indi na sax njariñ lenn ci borom xam-xam yi njariñ yi wax ne moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko moo tax ñu farataal ko te mooy laabal gi muy laabal rëcc rëcc yi nga xam ne mooy am ci weeru koor nit ki bu wooree xam nga ne woor day jaamu yàlla goo xam ne dafa tënk ci jant bi dafa tënku ci ci ci bëccëg gi tàmbalee ko ci fajar ba timis diggante boobee nag nit ki mën na fee bañ a def luy yàqu kooram ndax su ko defee moom koor ga day yàqu waaye mën na fee def nag loo xam ne luy wàññi tuyaaba la wala luy tax koor ga du mat na mu war a matee xam ngeen ne koor ajuwul rek ci ñàkk a lekk ak ñàkk naan waaye bu ñu demee ci maqaasidu sawm mi da nga xam ne nit ki war a woore dëgg dëgg dëgg dëgg ngir mu bañ a def lu tax koor ga manqué lu jafe-jafe la bokk na ci nag lii mottali ak kooram ni nga xam ne noonu la ko sëñ Ibrahima waxee ci ki lii mottali ak ci sujud xawla salaam ba'da noonu la mel ci asakay murum koor ci leen li borom xam wax ci njariñ yi nga xam ne euh, wax nañ ne génn murum koor am na ko ni nga xam ne noonu la amee ay ay lor ci wàññi gi mu wàññi koor yi demee noonu kon lii war a njëkk a jàpp mooy lu farataw la lu war la lu mat a fonk la fi bari na ñoo xam ne daanaka génn murum koor danañ dem ba nekk magum jëmmatu duñ ko mas a def ndax dañuy nekk gone seeni waajur di leen ko defal di leen ko defal di leen defal ba bu ñu àggee ci war koo def man koo def dañuy continuer dem rek duñ xam ba xam ni leen ko defalam defaluñ leen ko dañu suñu Ibrahima waxee léegi la doom ju nekk waajuram moo ko war a waaye dafa am fu war a yem waaye da ba yegg ci mukallaf te man koo génneel boppam su booba wàcc na waajuram waaye am na ñoo xam ne dañuy dem ba nekk mukallaf daanaka li leen di dal ci lu mel ne atay tabaski moo leen dal ci atay murum koor dañuy jàpp ne rek suñ demee ba dencuñ dencuñ soxna wala sambuñ kër wala amuñ njaboot muurum koor waragu leen te loolu itam juumte lu rëy soo xasee mat mukallaf te man ko ni ko suñu Ibrahima waxee danga jàpp ne muurum koor lu war la kon loolu suñu Ibrahima dikk na dikk itam ci ñi nga euh, ci liñ ko war a génne mu yaatal ci lool ci dund bi nga xam ne moom la war a génne muurum koor te bu dee ci tënk rek mën nañu wax ne fii ci Sénégal muy ceeb ndax mooy lépp li ñu ko war a dundee lépp li ñuy dunde bokk ci lañ ko war te lépp li ñuy dunde fii mooy ceeb lañ ko génne foofu itam mu indi itam li nga xam ne moom lañ ko war a génne mooy ci lañ ko war a natt foofu itam li ëpp solo mooy li mu wax mooy ku nekk ci nun mën naa génneel boppam muurum koor ci ni ko yonent bi sallallahu jàngale te du ci sonn ndax soxlawul sax ngay ngay wuti yi mu demee euh, la wax te saax mooy ñeent mudd te mudd mooy nga tàllal sa ñaari loxo ñaari loxo yu diggu doomu nga natt ko ba mu mat sëkk nga def ko ñeent yoon mooy tolloog saax loolu ku nekk mën na ko xaymaal boppam wala mën naa seet nu mu ko xayma bu la neexee itam nag nga sukkandiku ci li borom xam-xam wax ku nekk gis na fan yi li ñuy wax euh, baytu sakaat muy waa ñi nga xam ne ñoo koy saytu asaka ci diggalu sëriñ bi am na taqdir bu ñu def ci wàllu googu wane ne ñeenti mudd ci loxoy euh, saax ci loxoy diggu doomu boo ko nattee dana tolloog euh, ñaari kilo ak genn wàllu liibar kon itam comme neex koo takk foofu waaye comme neex mën nga koo nattal sa bopp waaye daal natt gi ak yittewoo gi daa doon farata lu am solo indi na itam euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox mooy ab jullit bu ñàkk rek jullit boo xam ne jullit bu ñàkk ndax ki war mooy koo xam ne am na lu ëpp dund bisu korité bi koo xam ne am na dépasse bisu korité ba mu des la mu des ba ca mburum ko matee kooku war na ko indi itam ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a génneel waaye mu indi lu am am solo loo xam ne day dikk ci ñu bari di ko laaj te mooy li mu wax ne ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew rawat na muuru muuru gi mel noonu dañuy faral di laaj ñoom ni ñuy génnee mburum koor loolu suñu Ibrahima indi na ci waaye ne ki nekk bitim réew mën naa yónnee ñu génneel ko mooy mën naa yónnee ci ak njabootam ñu génneel ko Euh, suñ ko koy génnee itam wax na niñ ko koy génneele wax na ne deesu ko génneele ci nun li ñuy dundee waaye ñoom lañ koy lañ leen koy génnee ci ñoom la ñuy dundee foofu naka noonu itam bu dee koo xam ne daa am ay njaboot foofa am ay njaboot fii ñoom ñëpp mooy leen war a génneel mburum koor waaye ñi muy génneel foofa da leen di génneel ñoom la ñuy dundee foofa ñi muy génneel fii itam mu génneel leen li nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy dundee foofu kon euh, ngir gàttal rek lépp loo xam ne aju na ci mburum koor ci kañ lay war ni suñu Ibrahima waxee ci borom xam-xam li ñu wutee ci waxtu wi waaye la ci ëpp solo mooy nga jàpp boo dugalaale ko ci yeñ sopp nga xam ne murum koor daal moom euh, war na ci boo xamante ni koor gi koor gi jeex na sopp nañ ginaaw sopp nañ nga génne ko njëkk ñaari fan nga xamante ni ni lañ koor gi mën naa nekk ajjuma mën naa nekk gaaw kon sopp nañ nit ki mu génne ko talaata ba àllarba ba alxamis sopp nañ ba neex nga génne ko waaye fa muy waree mooy ci diggante fajar ba keroog ngay julli ci loolu itam lu mat a bàyyi xel la am na ñoo xam ne julli ji ba ñëw doog di ko génne te su boobaa eh, ni ko si Ibrahima waxee su boobaa sarax lay tudd nett nañ ci jëfi Seydina Ousmane li mu ci defoon sarax lay tudd sarax lu baax la waaye su boobaa yoolu muurum koor gi taxoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal ñu ko muy warteef yool ba ci aju su doo ko am mën nga am yoolub sarax waaye doo ko am kon bàyyi xel waxtu wi di ko teel a génne te di ko génne ci la eh, gën a diggu doomu ni mu ko waxee loolu itam lu lu mat a bàyyi xel la indi itam mboolem yi nga xam ne sopp nañ ko ci ak yi nga xam ne sib nañ ko ci bañ a weesu li yàlla digal bañ ko yeexe te boo ko yeexee ba mu weesu bis bi moom su boobaa def nga lu aram euh, indi na itam ci masala mu am solo mooy lu jëm ci wàllum asakan murum koor ndax warees na koo génne ci euh, xaalis wala warees koo génne ci xaalis te muy loo xam ne borom xam-xam wax nañ ci lu baree bari waaye li mu indi ci tënk rek mooy gàttal mooy boo ko li nga xamante ni moom la borom xam-xam bari wax te mooy li gën a dëgër ci masab Malik mooy dañ ko war a génne ci asnaaf mooy xeet yi yonente bi sallallahu alayhi wa jàngale soo ko ci génnee mooy def nga lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal yaqinan maanaam ci lu wóor a wóor mooy jeexal nga ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo ko génnee ci xayma nag mën nga koo teg ci ne am na borom xam-xam yu ko wax waaye su boobaa euh, génne nga ko rek ci sukkandiku ci lu borom xam-xam yi wax boobaa itam mënees jàpp ne doy na ndax borom xam am na borom wax nañ ne loolu doy na waaye li gën a wóor daal mooy génne ko ci euh, ab dund bi nga xam ne moom lañ dundee li fekk agguñ ci maslaha sàkku ko maslaha maslaha ci barab ba nga nekk wala gisoo ko jox maslaha sàkku ci nga génne ko ci xayma su boobaa génne ko ci xayma euh, lu am solo kon bàyyi xel bu baax muurum koor xam ne fi ak ñaari fan ci kanam day daal di war ku nekk itam jéem koo génneel sa bopp jéem a seet ni suñu wax ne génneel ko ñoom la war nga fexe ba taxaw temm ci génne ko te jéem koo génnee ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale yàlla la boo xam ne koy def dañ cee war a jéem a dëppoog njàngale mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa kem a dugg ci noonu la ñëwee itam ci julli gi it indi yi nga xam ne mooy ay ci àtte ci melokaan wi nga xam ne moom lañ koy defee ak euh, attee ci aju ak bu ñu la rawee ci julli ko noo koy defaree ak kàbbare ci aju loolu lépp indi na ko muy loo xam ne itam lu mat a fonk la ndax ñu bari ñun julli gi it muy ko rek tabaski daanaka dañuy fàtte jaamu yàlla gi waaye jëmmi aada ji lañuy gën a la ñuy gën a yittewoo maanaam daal man xotti mbur yére yu bees dem julli ji Euh, fatawu ci balante ak moom lay gën a jox yitte fuuf ci ci li ma jëm ak jaamu yàlla goo xam ne sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam la te mu bokk sax ci sunna yi gën a fetliku nga xam ne joxe ko soo amul ngant day nekk lu war kon jëmmi julli ji julli xiit gi njëkk aada ji nga xam ne sunna su fetliku la soo xam ne ko suñu Ibrahima waxee wut ci yére yu bees yi ko man ci ñu sopp la bokk waaye itam dundal guddi gi waaye sangu ci ak yi ci aju yooyu yëpp ci lim na ko mu baree bari ci yi nga xam ne sopp nañ ko wat ni ko ci yi nga xam nañ ko ci tere euh, kon ci gàttal loolu mooy waxtaan yi nga xam ne moom la suñu Ibrahima doon waxtaanee mu aju ci muurum koor ak julli hiit muy ñaari jaamu yàlla yoo xam ne fii ay fan yu néew dañuy jëm ci jooxe ko jéem a jëfe li nga xam ne moom la sëñ Ibrahima doon waxtaane léegi muy li ñuy wax pratique ko kon bind bind bu tooy xépp la waaye bind bu ñu war a jëfe léegi suñu kanam la ñu war koo jàpp bu baax a baax ñu ngi sant sëñ Ibrahima bu baax a baax ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma ci waxtaan bu am solo bi ak xam-xam bu leer bi ñaan suñ borom gën a barkeel xam-xam bi gën koo yokk di ko sant bu baax a baax a baax ci yitte jëm jox waxtaan wi ndax xëy na waxtaan wi boo ko digloo bu baax a baax ak ni mu ko tëralee dangay gis ne jox na ko yitte bu baax ci génne mboolem lu ci xam-xam ak wax ci borom xam-xam yi wax masala mu agsi rek dana indi wax borom xam-xam yu baree baree baree bari xam naa ni ñu bari danañ dégg bay yi nga xam ne mi ngi koy tari ak euh, yi nga xam ne mi ngi ci tëri xam-xam yi lu mel ne xalil ak yeneen tëri yi mu indi loolu day wane yitte jëm jox jëm jox tem bi ndax moo na ko waxtaane waxtaan boo xam ne xëy na mën naa gën a woyof ci ñëw rek wax na si lu julli ki nangal waaye dafa wane ne lii ak jaamu yàlla goo xam daam atte yu ci aju atte yu ci aju nag borom xam-xam ci wax lépp daa war a ñëw mu leer ci nit ñi ne jaamu yàlla bu war a jox yitte la boo xam ne mboolem jaamu yàlla yi ni ñeen jox yitte noonu lañ ko war a jox yitte euh, jërëjëf sëñ Ibrahima ñoo lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teewoon jotaay bi yëpp di sant itam ñi nga xam ne ñoo doon jàllale waxtaan yi ba mbokki jullit yi fu ñu mën a nekk ci àddina bi di ko mën a di ko mën a teewlu te ka ci jiitu di MK TV te mooy télévision bii nga xam ne moo ne ci biir jumaa ji euh, ci daayira Muxaddamatul Xidma ñu ci yaatal njàngaleem sëriñ bi di ci yaatal liggéeyam sëriñ bi lépp luy jotaayu xam-xam ci biir jumaa ji ak ci biir dëkk bi ak lépp luy yaatal njàngaleem sëriñ bi ñu bokk ci ñi nga xam ne loolu rek mooy seen yitte amuñ mooy jàng ak jàngale yaatal njàngaleem sëriñ loolu mooy seen yitte ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci waxtaan yi di ko yaatal yaatal goo xam ne ci facebook beeg ci whatsapp beeg ci telegram beeg foo dem ña ngi ko fay jàllale ngir bëgg njëriñ li tukkee fii mu mën a yegg ci jullit ñëpp naka noonu tamit noonu lañu ko ànd ak waa nga xam ne at mu jot ñoom itam dañuy ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma di jàllale waxtaan yii di am ci jumaa ji ngir mu gën a yaatu noo ngi leen di sant bu baax a baax ñoom itam di leen gërëm di yëgle rek ne suba ci waxtu wi itam incha allah des na fi dellu siwaat ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo yu mel nii rek waxtaan wi nga xam ne moom la war a waxtaane suba nag incha allah mi ngi jëm ci al intixaabaat wa waajibul muslim maanaam ci gàttal rek euh, woote li ñuy wax élection muy woote ak lan moo ci fu ab jullit mooy tànn njiitum réew tànn njiitum réew xam ngeen ne euh, réew mu nekk dañuy tànn njiitum réew bu dee fii ci Sénégal bu yàlla dogalee fi ak ay weer ci kanam loola dana nekk dana nekk xew-xew ci dëkk bi mooy tànn am njiitum réew su boobaa nag lan moo ci warteefu ab jullit ndax xam ngeen ne lislaam moom maa farat naa fil kitaab min shay'in mooy lislaam bàyyiwul dara nit ki aw dundinam lu ci nekk lislaam tër na ci atte yoo xam ne daa am lu ko ci war am lu mu ko ci tere kon nag naka la ñu war a tànne njiitum réew lan moo ci warteefu ab jullit lan la ci war a def ndax da caa war a def da caa war a wax ndax da caa war a banque ay yoxoom lan moo ci wartéefam ak lan lañ ko tere nan la ci war a doxale loolu lu baax a baax a la ngir ñu xam ko dana tax yii ñu jëm ñu xam lan la ci lislaam digal ak lan mooy ci suñu wartéef bañ mën a wàcce ko la daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene ànd ak yéen ñu ci ànd ak borom xam-xam bu mag dari sëriñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadud jàmm moom la fas yéene waxtaane muy waxtaan bu mat a bàyyi xel boo xam ne bu mat a teewlu la kon xam naa noo leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje suba ak jàmm insha allah wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu